auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim asalaamualeykum wa rahmatullahi noo ngi dellu di yeesal sunu cant di ko jëmale ci sunu borom bi subhanahu wa taala cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem tey làqu ci moom di teewlu fi kanamam di ko woon sunu lot ak sunu doyli ak sunu xeebu tey muslu ci moom tey làqu ci moom te di ko ñaan mu dox suñu diggante ak seytaane dimbali nu yëpp ci bakkan ak bànneex ak àdduna ak bindeef yi ci lépp luy lore di ko cant cant boo xam ni am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem ci xéewalam yi nga xam ne suñuy pexe jotale wunu ci waaye yërmandeem la ci noonu ndax pexe lu mu yaatu yaatu yaatu ak gut ci naa fexe ba fekke déwén kon buñ bokkee daje woon fii daaw bokkaat fi daje te am ñu wuute yow ma teew na nga xam ne ci coobaree suñu borom rekk ci nga teewe ànd ak sagoo ko wér kon nag coobaree suñu borom jooju yi nga xam ne dëppoo naag ñu amul wér akuk tal akuk fekke ba mën a bokkaat fii di teew di fàttaliku ganeek àdduna ngën gi mbindéef ci guddi gii ameel nañ ko ci cant boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem guddi gii nag bu ñu fi bokkee daje ñu jóge ci gox yi fasantikoo war nañoo xam li ñu fi taxa daje lu mu doon ak ki ñu fi taxa daje ku mu doon suñ kam kàttan ba bu ñu fi bàyyi ko kenn ku ci nekk ki xamoon dana ca yokk ki xawoon a fàtte dana ca fàttaliku ki xamutoon it dana ca yokk ak xam ngoo xam ni foo xëyee rek loola dana dolli ko ci sa dundin boo rafet sa digg ak sa borom ak sa diggante bindéef yi ak sa diggante ak àdduna lu ci ne na nga ca war a doxe loolu lépp nag dafay laaj ak teewlu teewlu gi nag kenn ku ci nekk su xalamee léegi teewlu mën na laa dimbali ci lu bari ndax kenn ku ci ne ni ma koy waxtaane waxtu wu ne muy loo xam ni ñun ñépp a koy dund bare na ñooñ bu ñëwee ci barab yu mel nii walla fu ñu war a dolli ko ci yàlla seen xel du fa ne te lu ëpp a def la ndax yàlla mi nu bind melal nu kàttanal nu bàyyee na nu fi ñuy def suñuy rëcc rëcc di di ko tooñ lu nañu di ko def te tëriwut moom yàlla xoolul loola lépp waaye mu bàyyee nu fi ba ya ñuy jëfandikoo ba di ko fàtte moom bu nu fàttaliku woon rek duñ tal yooya ba tax na bu ñu dajee ci guddi yu mel nii sunu xel war naa dem ci moom bu baax ñuy yeewu bu baax ci sunuy gët yeewu bu baax ci sunuy xol yeewu bu baax ci sunuy xel ndax ku ci nekkat ka nga bëgg sooy wax ak moom guddi day neex ci yow lool yaa ngay xàqtaay yaa ngay bég yaa ngay kontaan bu la yónnee benn ojo nga déglu ko bég lool doo tala nelaw doo bëgg guddi gi jeex nga daal di koy delloo beneen moom it mu delloo la beneen ci loolu ngeen di nekk ba asamaan set wecc te say bët du lay sax waxuma la ak nelaw kon bu ñu agsee ci jataay bu mel nii ku fa sa bët lay wala nga naan dangay nelaw yaa ngay jënd yàlla ku ko ku ko jërut yaa ngay jënd yàlla it lu ko jërut ndax bu la fàttalikoon ca saa soosee da nga ne karaj sa téléphone fay ko dem tëdd tal leneen lu dul loola mooy tax nañu seetantal bu baax yeneen yi li mu nu jaral ki nu bind ba tax loolee mën noo jaral kookee moo nu war a jaral lépp te waruñu ko jënde dara loolu maa ngi koy fàttali sa bopp te di ko fàttali bindeef yépp te yàlla rekk tax kon guddi gii bu ñu ci egsee du caagee ni nit ña dañuy waaj rek kenn ku ci nekk sol boobu ma gën a rafet dikk kenn ku ci nekk ne nangam la ñuy rey ci nag ñee ne nangam la ñuy rey ci ganaar ñee ne nangam la ñuy def ci berde ñee nañu sol seen ñuwaale kenn ku ci nekk naan mag gàmm gi la ñuy waajal bu ñu dajee ca gàmm ga dafa am lu ñu fa war a tax a daje muy rasulul insaniya ñu jàngale ko fa muy jikko ju rafet jàngale ak nubuwatu jàngale ak nite loolu mooy li nga xamante ni mooy nu fi bokk dajale ñun ñëpp ñu jóge ci gox yi fasantikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu feeñee dafa bari lu mu fekk ci ay xaadaat yoo xam ni yépp lu diisoon ci nit ñi la lu nit ñi téyewoon la ba jàpp ne waruñu koo mën a bàyyi ci seeni jëfin ci seeni waxin ci seeni doxin ak ñañu nekk ko di ca booba jamono doonoon seeni kilifa ca loolee moo tax bu mu feeñee ah lor yi metti jafeñ-jafeñ yi am ndax nit ñi kat dañuy jàpp ne kii lim indi lu yees la yoon wi mu leen bëgg a teg da leen a bëgg a teggi ci yoon wa seeni baay ak seeni maam awoon daf leen a bëgg a jëlee ci seeni aada ak seeni baaxu maam su ko defee ñoom ñu taxaw ngir défendar seen baaxu maam ak seen baaxu baay ak seeni aada te fekk ne lii mu indi mooy yërmaande ji nga xam ne bu ci ñëpp jàppee sunu adduna jakk sunu àllaaxira jakk waaye ñoom nag ndéggiwuñ ko woon noonu bi ko sunu borom feeñalee it da koo tëbb kàttanug muñ ak kàttanug leer ak kàttanug xam ba nga xam ne bindeef yépp képp ku ko déglu te suñ borom namm ci yow ak njub da nga ko topp te boo ko toppee da nga jariñ tey da nga jariñu it ëllëg kon yonent boobu bu mu feeñee li nga xamante ni mooy sababu ak feeñam mooy defar bindeef yi ngir seen ëdduna mën a jàkk ndax bindeef yi bu ñu defaroo rek ëdduna jàkk ëdduna du jag mukk ci lu dul ñi ko dëkke dañoo jàkk ndax ëdduna kat lu fi meññet yi bari bari bari lu fi mbell yi bari bari bari muy gaz muy pétrole muy xeeti am am yëpp muy mbay muy nangu yooyu yëpp su fekkente ni andu tëg nit ñi defaru loolee duñ ko mën a jariñoo ndax ci xeex ak xëccoo ci la ñuy nekk ba lépp day far mujj yàqu day mel ni ñu téye mel ni mbir moo xamante ni ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo kenn ku ci nekk am ca wàll waaye kenn ku ci nekk di xëcc di diiru jëm fi béréb su boobaa loolee yàqu rek lay mujj def wala tasaaroo ba ñoom ñëpp kenn du ca jariñu su boobaa dafay mel ni ñett ña àndoon for am mbell ca àll ba bañ demee ba xiif kenn ne ñoom ñaar ñu ne nañ yabal kenn mu dem wutali nu duñu lekk kooko ak xéram ci àdduna ak bëggeem tax mu dem ca ñam bam jënd ca dëkk ba mu def ca posen indi indi ko waaye ngir bëgg a wéetoo alal ja rekk ngir xérama ko bëggeem ñaar ñi ci desit toog di ko xaar ne lii daal bu ci diw bokkee nam war a sakkane day des buñ ko séddoo ñett séddoo ko ñaar mooy gën a sakkan nañ fexe kon ba bu diw dikkee ñu rey ko ñoom ñaar ñu mën ko séddoo kee tamit ne man ba ma ci jotee man dong ci lay gën a sakkane ci ñu def ko ñetti cër mu def ca posen ba mu ñëwee moom xalaate ne lam xalaat def ca lam xalaat ñii tamit xalaat ne li ñu xalaat bi mu ñëwee ba teg ñam wi ñoom ñaar ñoo ko ëpp doole ñu rey ko lekk ñam ba it faatu ñoom i tamit kon lañ doon xëccoo ñoom ñett ñëpp ñàkk nañ ko te bu seeni jikko rafetoon kenn ku nekk da koy yéene moroomam ba mu jàpp ni moom moo ko am ni nga xamante ni noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yarewal saxaaba yi nga xam ne bu ñu sukkee ci lenn ndab benn dogu ndawal nekk ca ki ko njëkk a daj dana ko buuxal ka ca wetam jàpp ni lii rek moo nekk ci ndab li ka ca wetam it bu ko dajee it dana ko buuxal ka ca wetam ba mu jàpp ni lii rek moo nekk ci ndab li ba ba muy yegg ca ka ko njëkkoon a daj su boobaa kooka day day jàpp ni ah xëy na day kon lii day lu yaatu ci bool bi te fekk lenn rek la waaye kenn ku ci nekk moroomam da koo gënal boppam te loolu yi mooy jikko ji nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale mooy jikko ju rafet innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yonent yëpp alayhimu salaatu wasalaam jikko ju rafet moom lañ doon jàngale te léegi nag mooy li tumuraanke lool ba foo ko takk weesu na ko nit ñi seenu xër ak seenu bëgge tax na yu bare bare bare bare bare ñu ñu di ci dugg kenn ku ci nekk loo mën a dajale yaa ngi koy dajale waaye nanguwoo sax keneen am dara képp ku nar a am dara ci cër wala ci am am wala lu mën di doon fu mu ko mën a amee nit ñi boo seetloo kooko yoonu mu mën a jaar ngir am ña nga fay jaar ngir dogale ko ngir ne bu mu am man rekk naa am naa wéetoo aw tag naa wéetoo daraja naa wéetoo am am naa wéetoo lu mu mën di doon boo soñoon yow dong yaa koy am wala yow yaa koy dàqale ca fa nga dëkk wala ca fa la nekk doo bëgg keneen am ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yarewutoon noonu saxaaba yi jikko jëm leen yare woon coojee ca lañu war a dellu siwaat te di ko fàttalante te di ko nafalante ci suñu biir te di ko am ca ak jàpp ak dégg ba ku xëy mën a daldi tàmbali loola lu ca nekkoon ci yow nga fexe loola yokk te bañ a wàññeeku lu ca nekkutoon ca yow it nga fexe loolee na ca yow te nga góor góorlu it loola sax fi yow loolu mooy li nga xamante ni moo waral ñuy màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallama waaye defuñu ko rek ngir ñëw rek daje yëkkati alquranul karim yëkkati xasida waaye li ci ëpp solo mooy dénkaane bi nga xamante ni noo ngi koy dénkaane te kenn ku ci nekk nag war a am lu mu ca jàpp loo xamante ni da ngay fas yéene soo jógee jéem caa jëf sa kem kàttan ndax jëf kat sooy jëf la nga man la nga tële sunu borom dana la ko yombalal ndax sunu borom kat bala laa gàttandu da ngay jub jéem di dox jëm ci moom su boobaa ci la lay gàttandoo moo tax kon guddi gii guddi gu màgg la ci àdduna bépp ci bindeef yépp ndax ki ci feeñ moo soye waa àdduna bépp ndax li mu jàngale kat boo gisee léegi fu ne ñu ngi wax ni ña nga fay wàccee nangami kaamil jàkke ñi ngi ñi ngi fees nit ñi ñi ngi cant nit ñi ñi ngi màggal nit ñi ñi ngi gàmm nit ñi ñi ngi sikkir booy déglu ci rajo bi màggal bu ne wala cant bu ne wala daje bu ne ñu ngi koy def li ñu wàcc ci ay li ñuy wax ni moom la ñu wàcc ci ay kaamil di ko jàng ci alxuraan di ko tudd ci yàlla day mel ni fu mu aw doo ko xam ndax tey la jafe-jafe ñi gën a bari tey la nit ñi gën a ñàkk yéenante jàmm kon dalay wóor ni am na lu nekk ci suñ biir loo xamante ni kenn ku ci nekk war naa dellu ci boppam seetaat boppam ci doxalinam seetaat boppam ci waxinam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale ne du ngeen gëm mukk mukk mukk mukk mukk li fee bëggante wu leen kenn ku ci nekk kon war naa natt boppam ci nan laa bëggee sama mbokkum jullit laaj boobu ku ne war na koy laaj boppam ndax du ngeen gëm feek bëggantewu leen kenn ci yéen it ak ngëmum du mat ndare bu lim bëggal boppam daf koo bëggal jullit ñépp loolu it ku ne war na cee laaj boppam fexe caa am tontu loolu lépp it nga fexe di ci yar sa bopp boo xoolee saxaaba yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ yonent bi moo leen gënal seen jëmm moo leen gënal seen alal moo leen gënal it seen njaboot loolee ba tey bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp war nañoo jàngaat ba xam fan la toll ci suñu xol ak li mu doon taxawal muy dëgg ak njub ak lislaam lan lanu jaral it ci suñu xol ndax bariwaa na ku dëkk ci quartier jàkka nekk fa nga di ko romb di dem ak a dikk luñ fay def doo ca jéem dara ba bariwaa na ku dëkk ci ab koñ ñu defar ñuy defar daara wala université wala lu man di doon loo xamante luy jëriñ jullit ñëpp la da nga koy romb di dem suba ak ngoon te doo ci jéem dara da ngay defee ne yow dara waru la ca déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du fi jóg lim doon taxawal muy lislaam ba keroog addunay tukki da dafay soxla dafay soxla ñu jiitu woon fuñ ca yemoon ñi ñi dikkaat sof ca kon guddi gii suñ ca dajee yu mel noonu moom lañ war di fàttaliku bu baax a baax jàng ci jikko jikko yi jéggale jikko yi ñàkk a gis sa bopp jikko yi ñàkk a gis say jëf jikko yi ñàkk a kañaan jikko yi ñàkk a rambaaj jikko yi wax dëgg jikko yi suturaal sa mbokkum jullit te yàlla tax jikkoy rafetal ndax yooyu moom la ñuy wax makaarimul axlaaq mooy jikko yi nga xam ni ñun ñëpp bu ñu ko làmboo kenn ku ci nekk da nga namm sa moroom seen jataay da nga namm seenu daje waaye boo xoolee ci jamono bii ñu tollukat li ëpp ci bindéef yi dafay mel ni dañuy nekk ci biir màndiñ ay gaynde ak i segg ak i kéwél ak yenn jëfandikoo ñoom ñoo ñuy nekk fa daanaka ku ci jekk sa morom rek def ko ko ci jamono boobu daa mel ni ci lañu toll fii mu ne nii te loolu it lu mat a bàyyi xel la dóorutoon li ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ba tax na ñun ñëpp war nañoo dellu si suñu bopp ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boo xoolee ci réew mi réew mi mépp tey guddi gi ñi ngi koy màggal ñoo ngi koy dundal bokk na ci ni mu daan jàngale bokk na ci rafetinu diine yi cem si bàyyi lu ko amadul njariñ ci wax ak ci jëf ak ci melo tey ni ma ko junjalee gi nit ñi mën nañoo foog guddi ba asamaan set wecc ci àdduna ci bakkan ci bànneex te loolu lépp luy dañ la yàlla mi nga xamante nag moo la may kàttan ba nga mën a nekk ci loolu te du fi jóg mukk te mooy aji des ji ba faw jëlalu la sax julli ñaari rakkaa ci guddi te loolee day mooy liy des ba faw boo demee ci Masaalikul Jinaan sëriñ bi wax na fa ni am na benn nitu yàlla boo xamante ni dafa génn àdduna ñu laaj ko li nga doon jëf lan moo nga ci dese mu ni nun day suñ jëf yépp jeex nag jëfandikoo nañ ko ba mu jeex takk lu dul rakkaay yi nga xamante ni doon nañ ko def guddi ngir yàlla te léegi loolu day ni mu nu yombe dem na dayoo waaye kenn ci nun julliwut guddi kenn ci nun jàngul alxuraan guddi ci ñu ëpp ci nun weer duñu guddi naafilawuñ guddi waaye kenn ku ci nekk nag mën ngaa fanaan moom ci sa téléphone ba dégg jàkk jëli loolu salaatu xayru mina naw mi te du la tax a jóg julli ca loolu lépp nag loo ca weesu fàtte ko te du la dikk dara tey ak ëllëg yàlla mi nga xamante ni nag mooy aji des ji te loo def ci moom benn mu defal la fukk boo defee fukk mu defal la téeméer war nañu dellu si suñu xel bu baax lu mu doon ñu di ko yemal te la cay farata te dinu jariñ ñu di ko jëfandikoo la cay lor te duñu dikke dara wala la cay nuru bànneex te te du dara loolu lépp ñu di ko daw te jublu ki nga xamante ni kat moo nu may tal bañ mën a jóg guddi dina ca yooya ndax kat su la toppoon suñu toppoon ah mën na laa teg loo xamante ni dangay fay sa téléphone teg ko ne dootal dara waaye ci mbaaxam kat ci biir mbaaxam yooyu ngay def yépp ci nga koy def kon nag loolee lu mu gàtt gàtt gàtt sax nag war nga ni ah man de lii ma sëgg ne ci rek te cee jóg ki ma may tal bu ma ko mane na jóg jàpp julli ñaari rakk sante ko may gi ma may tal goo gii may gi ma may wér goo gii may gi ma may xel moo nii te jëmmam rekk tax loolee kat lu ma tuut tuut tuut su ëllëgee bu ñu takkee say tànk takk say loxo doo ko xeeb mukk kon ñun ñépp nañuy góorgóorlu bu baax ci li nga xamante ni moo tax suñu borom wàcce ndën gi mu def ci guddi gii nu nekk bañ koy def rekk ne ah gàmm nga day fees na gàmm nga day neex na wala màggal nga day fees na wala màggal nga day neex na fépp béréb bu ay jullit daje la war a doon suñu yitte ñun ñépp mooy bàyyi xel añu des bi te biir ca ci biir desam googu ci lañu dese te lim nu fi dese lay lenn lu dul ñu jaamu ko jaamu ko nga nekk ca te bañ koo foye te bañ ko yemaleeg dara tey njëkkante it ak sunu digg ndax digg bi moom kenn xamul kañ lay digg te waxtu wu ne mën naa ak ci sunu kaw te bu yegsee loo jëfutoon duutoo ko defati mukk te xaaral ma defi nangam yi duut am laa yastaxiroona saaha wala yastaxdimoona su agsee doo ko jiitoo benn seconde waaye ba agsee it benn seconde du ca tege kon loolu yi war nañ koy bàyyi xel ndax dund gi kat saxul tey ndaw koom la noyyi koom la ndaw moom la sunu borom gën a soxla moom la adduna gën a soxla moom la bakkan gën a soxla moom la bànneex gën a soxla mooy tax ndaw nay góorgóorlu bu baax nun ndaw ñi nañuy góorgóorlu bu baax tey farlu bu baax tey takku bu baax ku la gën aw ndaw kat moo la gën aw mag ndax nit ki tuub da nga ko war a teele te yàlla tax waaye soo demee ba doon mag daan gis lu dul noona dem ba say bët neexatut mënatut nga naan ngay naan maa ngi tuubal yàlla boo dëkkoon sa jàkka ja it di kocc kocc suba ngoon bu dee bëccëg it du la dikk dara wax ndax suñu borom day xam ne yow mii ba ngay man mosoo ko yittewoo dangaa dem ba mënatoo dara ca la nga doon def ndax li ñuy wax ci sarti tuub kat daf caa bokk nga def ko njëkk ak tële di dikk waaw soo daan def lu yàlla gërëmut dem ba lott ca ne man day duutuma ko defate dangaa mën a tub waaye loolu yàlla du ko xool yàlla fa mu soxlaa mooy fi nga mane fi nga amee kàttan fi say bët neexe fi la bakkan jubloo fi la bànneex jubloo fi la lépp jubloo nga bàyyi fa loolu jublu yàlla su boobaa yàlla dalay gàttalu ak mbégte aku cant ci yow aku ngërëm ci yow waaye nag boo demee ba yooyu yépp wan la gannaaw mënatoo jëfandikoo bànneex mënatoo jëfandikoo bakkan mënatoo jëfandikoo adduna mënatoo jëfandikoo lenn nit ñi sax dañ lay ber ca yooya soo wëlbatikoo ne maa ngi tuub jëm ci yàlla loola kat lu la dikk dara ndax ak tële moo la tax a tuub aku ñàkk man la nga doon def loolu moo tax mooy tax képp ku man te tëleegoo sag man ak sag ñàkk tële na nga ko jëmale ci ki la jox ak man aku tële muy suñu borom subhanahu wa taala mooy tax guddi gii war nañ cee jànge loolu muy jikko ji rafet bokk na ca muñ ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne daj na ko ci mettit te loola ku ne war na cee natt boppam ndax yàlla ma yónni képp ku ànd ak yow ñu di ko fitnaal di ko naqaral di ko teg ay coono ñii rey nañ leen lislaam jigéen lañ ci njëkk a faat faati boo xamante ni kenn mënu koo misaal ci mettit tàndar say tànk sa ñaari tànk ak sa ñaari loxo teg ab xeej ci sa biir ba xeej ba sar te tëxut nga ni oh loolee lu mat a bàyyi xel la nga seetlu it am ci góor ñoo xamante ni noonu lañ leen reye am ci ñoo xamante ni dañ leen a duur ba dem na dayo ba loolu sabab na ñu gàddaay nun ñii nag nga xamante ni day noo ngi ci jàmm noo ngi ci xéewal noo ngi ci ay tawfiq noo ngi ci ak wér noo ngi ci am-am te kenn ci nun sa wér sa am-am sa kattan ci sa bakkan rek nga ko fas yéene jëmale waaye jëmale woo ko ci sunu borom loolu lu mat a bàyyi xel na yonent bi noonu mu doon muñe nga xam ne dana génn ci biti ñu di ko yooxoo dana génn ci biti ñu di ko yéej dana génn ci biti ñu di ko sànni ay doj di ko sànni ay xeer ba ay tànkam di neewi dana génn ci biti ñu di ko booleeg ay dawkat ñu di ko topp loolu lépp taxul mu yuqat benn yoon ñi ànd ak moom taxul mu yuqat benn yoon lu ne won nañ ko ko doon danay julli ñu sànni koy sébbirit fa fa fa mu ne dañuy gas ay kàmb ngir di ko ca ngir di ko ca tëru ngir mu war caa tàbbi xeex na bañ mbubbum koŋ mi mu sol ñu dóor ko ci jeesi ba ba wiis bi nga xamante ni moo téye mbubbum koŋ mi bënn bopp bi ba kañ njëkk a sex ngir génne ko ay bëñam ca la des yooyu yépp ngir lan taxawal dëgg ngir lan kaweel baatub sunu borom loolee war nañu koy fàttaliku xam ne diine tey jii la ko gën a soxla donte yooyee ñu doon def muy jihaad boobu amatut jihaadu nafsi war naa mën a am ba suñuy jikko rafet suñuy dundin ci suñu biir mën a rafet jàppalante ci suñu biir mën a rafet kenn ku ci nekk lay taxawal lislaam ci sa jëf ci sa wax ci sa melo nga di ca nekk ñu wéet ak ñu wéetliku loolu luñ war di bàyyi xel la noonu yi nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dunde ak ña àndoon ak moom ak leneen yàlla jaraloon muy seen bakkan nga tàmbali waxuma la góor de waaye nga tàmbalee ko soxna soos yi nga xamante ni gis nga niñ ko reyee te musul ni oh te am na fii kat nu ci nun ñii du dunda di képp da ngay nekk ci lu baax dégg ci ay baat wala ñu teg la yenn fitna yi wala yenn natt yi képp nga daal di bëgg ñu xat dem toog nga xam ne dóoree su la defee su la dara ay wax nga dégg ci say nopp képp loolu lu mat a bàyyi xel la ña téyewoon ak dëgg seen bakkan moom lañ ca tegoon rawatina nag dëgg goo nag tëbliwut goo xamante ni yaa ngi koy dund ci sa xol yaa ngi koy dund ci sa xel yaa ngi koy dund ci say cër loolu yow boo ca doon wéet yow dong it ñépp wan la ca gannaaw na yem ci yow képp ndax yàlla moomum dëgg yàlla moom ak njub te ku ne ci dëgg ak njub yàlla nga ci nekkal nekkaloo ca nit ña kon bul gestu nit ña buñ ñuy dox ànd ak ñoom dox te bul gestu seenu doxeen bu ñu taxawee doxal te wéy bul gestu seenu taxaw te foo toll it na ngay muñ lor yi nga xamante ni dana jóge ci ñoom di jëm si ci yow ndax jamono bii ñu toll kat ki doxut kii dox wut te bàyyi xel ki doxut ndax dafa am ñoo xam ne dañoo baaxoo wut dox yow mi yàlla dogal nag nga baaxoo dox di dem kii nga xamante ni toog dong mun a baaxoo yow mi dox ki toog di wax ak yow bul ko gestu ndax kii doxut te du ma sa dox yow mi nga xamante ni nag yàlla suñu borom dogal na ne yow yaa ngi dox di yéeg bu fekkonte ni ci garab nga yéeg wala ngay dox jëm ca kanam bu dee garab la saa soo yéegee ñaari jéego kee ki waxam te moom fi mu toog du fi jóg abadan ay waxam boo ko gestoo wala nga wàcc nag xaaral ma defante kii na la wóor ne yow tamit fa fa kooku mujj dong mu fa ngay mujj doxal tëw yi te bul gestu loolu yi lu am solo la mooy kii na ci lu baax bu mu di gestu doxal te nga dem te nga dëggal te nga sellal te jëmmi suñu borom rekk a tax kon guddi gii kat doonul guddi goo xamante ni li ci sëriñ bi wax ci képp ku ko teewee ak képp ku ci jëf sa alal donte benn dërëm la mel nga ne ku teewe xare badar njariñ li ñu fiy waxtaane ak li ñu koy dunde loolu moo tax waaye daje fi rek jëfandikoo xéewal yooyee dal di dem te xut ñuy wax waaye li tax ñuy wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñu waxtaane fi jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam akum jàngaleem ak saxaaba yi ni ñu doon dunde ci seen biir kenn ku ci nekk boppam gënaloon ko alalam loolu waxtaane nañ ko ba tàyyi léegi ñun ñii nag boo seet loolu lu ci waay am yaa nga ne yaa nga ne kii it ak moom leneen lu waay am yaa ngi fexe kookee lam am nu mu deñe te loolu day bokkutoon bokkutoon ci am jàngaleem boo seetloo am na xare boo xam ne dafa am ci jullit ñi ñoo xam ne ñu ci bari dañoo am ay gaañu gaañu gaañu gaañu yooyu li muy tar tar tar tar tar ba nga xamante ni ñu ci bari ñu ngi ci sukuraat kenn ci ñoom fàttewut melo wi la yonent bi yare woon ci sa bopp na la ko sa mbokkum jullit gënal am ku ñëw di seet bokkam ci biir xare bi ba gis ko muy mu bëgg koo jox ngir mu naan mu dégg mbokkum jullitam ci wetam di onku mel na ni ndox mi ni mu yëngoo kooko soxla na ko kii tëdd ñu ko doon yët ndox mi dafa joxoñ kooka kooka ba mu yeggee ci kooka it am na keneen ku nekk ca gannaawam kooka it ni mu déggee ndox mu yëngu mel na ni soxla na ko mu yëglu kooka it jàll ko kii tëdd fi mu tëdd soxla woon ndox mi na ko jàllale ko ca kooka noonu la ko def ba ca ko mujj ba mu yeggee dafa fekk kooka dog muy faatu bi mu dellusiwaatee ci ko ci topp mu fekk kooka dog muy faatu ba ki taxoon mu indi ndox mi bi ñu waatee da ko fekk mu dog kooku faatu ndax nun loolu bëggantee nañ noonu ndax nun yéenantee noonu noonu jàmm waaye fi mu ne ci jamono bii nu toll kenn ku ci nekk lan ngay seet ci sa mbokkum jullit ak lan nga cay jeex ab safaan rek boo mën a wax doo ca xool mukk lu rafet boo ko ca gisoon sax doo ko wax da nga koy nëbbu jël ab safaan boo sos di ko teg ci kawam boo ko mënee jariñ doo ko jariñ mukk da nga koy dawloo rek su la laajoon loo ko mën a dimbalee sax da nga koy jox da nga koy dogal ngànt su la doon wër ngir sàkku ci yow ndimbal sax jaral na la fay say téléphone jaral na la tëj say bureau jaral na la wax say secrétaire bu ma diw dee laaj nee ko nekkuma fi te yaa nga fa de waxoo dëgg bu ñëw bu di bu di ñëwee ci kër gi nekk sama bàyyi daa génn yaa ngi jàngal sa doom yi fen de te yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la nit soo amee kii ñëw di sàkku ci yow ndimbal ubbil ko ndax am am bii nga am kat mën naa wëlbatiku dem ca moom mën ngaa xëy ñàkk ba mel ni musoo am ndax adduna moom booy dund te génne góof la wax xob lu ne nga da nga gis ku njëkk ak am mujj ak ñàkk da nga gis ku njëkk ñàkk mujj ak am kon dara jëru ci dara soo amee nit ñi di ñëw ci sa kër ngir yàlla ubbil say bunt ubbil say téléphone kenn ku ci nekk la nga ko mën a dimbalee nga dimbalee ko ko te yàlla tax loo ca am ngànt nga wane ni damaa am ngànt jur wax lu dëgg nekkuma fee damaa jàpp ak damaa génn ak bu la woowoon téléphone sax fekk yaa ngi ci sa biiru saal toog wala sa biirum néeg toog nga ne ko man de tey nekkuma fi xanaa da ngay bàyyi ba beneen yoon te wóor na ne yaa ngi ci sa biiru saal sa soxna di dégg sa doom di dégg te li ngay wax dara du ci dëgg nit ñi nag léegi dafa mel ni wax lu dëgg moom bàyyeetuñ ko xel du dara ci ñoom tey fen day ni ñu ko waxee mooy dong moo mën a yëngal xaras fen moo mën a yëngal xaras ak sàbbaali góoru yàlla isaa katabtu tas sa xarsul baax yi loolu rek lañ yëg ci lu mën a yëngal xaras ak wax lu du dëgg boo waxee lu du dëgg li nga wax te du dëgg dana génn bëtt asamaan yépp ba ca xaras mu yëngal ko ne suñ boroom man maay fenu diw doomi diw ak diw kon gaañe nañu bàyyi xel li ñuy wax képp ku ci wax deel wax dëgg wala nga noppi te li ñuy wax yépp day nanu wóor ni ëllëg dañ leen dajawaateel moom te nanu wóor ni suñuy cër yi mboolem lu ñu ci jëf danañ ko waxaat nañ ko jëfe woon ci kanamu suñu borom nanu wóor nit kenn ku ci nekk ëllëg yowmal xiyaam say jëf yaa koy yanul sa bopp yaa koy téyel sa bopp booy teew ca pénc ji ma indaale ko ñëpp seen la ne diwa nga nee nga yenu say jëf ñëpp di la gis ndax foofa kat amul benn ruq booy jaar fi mu ne fii ci adduna moom boo demoon fi béréb sa yére taq fa wala mu tilima fa wala dara gaar la fa man ngaa wetañaa mu làqutu ba dugg sa kër sangu summi sa yére yooyee sol yeneen yére génn kenn du la xàmmee fee nag mene woo fa yóbbaale ñépp dañ cey teg seen bët du doon kumpa kenn mooy tax nañu bokk di góorgóorlu bu baax sunu jaamu yàlla lu mu bari bari bari bari bari bari bari te feeñut ci jikko yi du dara julli balaa ngaa xam ne yàlla mi ngi lay nangul say julli da nga yëg ni man mii de amul benn mbindeef buy dox ci kaw suuf bu ma bu ma bu ma añaane la ko yàlla defal ci taar wala ci daraja wala ci am-am wala ci lu mu man di doon féeg demoo ba yëg loolu ne la wóor ni sa julli jullee koo de loo mën a mën a koor loo mën a mën a jàng alxuraan loo mën a mën a mën a tudd yàlla waaye yaa ngi yëg ci sa xol kañaan ak wax lu du dëgg ak rambaaj di dox di yàq ay diggante ak jëf bëgg ñu di ko tudd yooyu yépp ne la wóor ni lay tàmbalee boo julli de dangay dox kay di dem ca jàkka ja ak a dikk waaye julli woo mooy tax loolu it mën nanu maase di ko bàyyi xel lu baree baree bare boo fanaane woon di foog guddi ba asamaan set di jàng alxuraan ak xasida wala ngay tudd yàlla ak di ko sàbbaal te mu wóor na ne sa xol bii kañaane diw lam am mi ngi ci diw li mu am lu tax mu am ko ak di yàq doomu aadama yi ne la wóor ni loola ngay def doo ci am dara ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat li ko indi woon ci kaw suuf mooy defar nit ñi ba kenn ku ci ne ñime moroom ma waaye léegi fi mu ne kenn ñimeetut kenn ndax jikkoy yàqu kenn ku ci ne yaa ngi daw sa moroom ndax jikkoy yàqu kenn ñimeetut kenn te loolu yi war nañ ko bàyyi xel bu baax ndax kenn ku ne lam am bëggut kenn xam ko ndax jàpp nga ne kat diw bu xamee lii tànk yum ci man di jaar ngir yàq ko dana ko def su ko defee ngay daw kooku kenn nit wóolootul kenn ci alalam ak ci kàddoom te loolu day mag ñi ñi yoroon jikko ju rafet da leen a jaral da leen doon jaral seen bakkan des ca nit wax la ay wax nga génne ko nit da ci daan rey boppam nga wax ak sa moroomus gor la ngeen waxante ci biiru néeg mu xëy dégg ko ca pénc ma lu ne lu ne nag lu ne nit def na ko ci léegi nit ñi loo leen wax ñu weer ko loo leen dénk ñu lekk ko yaar yooyu lañ boole loo leen wax ñu weer ko loo leen dénk ñu lekk ko ku ciy leb sax ci jamono bi ngay leb man ngay waat ak a giñ bi sàngam bi sàngam dinaa la jox te li ngay wax dara du ci dëgg bëgg a jekku sa mbokkum jullit rek ba war ko ba trian ko fab alalam dootoo ko fay di ko dawloo bu la woowee du la jël léeg-léeg nga fay sa téléphone wala nga di ko coupé ngir lan te moo ne ba ngay leb day dafa neexoon ci yow lool waaye loolu lépp gisatoo ko xàmmeetoo ko séeratoo ko te jullit daw doxe noonu jullit fu mu masaale bi mbokkul jullitam day sawar ci lebal ko ndax leble aw yiw mag mi ngi ci leble dana dem ba taxaw taxawaayu sarax leble dana dem ba taxaw taxawaayu maye kem ki lay leb aajoom na mu toll waaye léegi gannaaw kuy leb sa yéene mooy fa soo yéenee fay loolu jullit ñi war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax mooy tax ah kenn nangutu ta leble ndax kenn nangutu ta fay bor waxit léegi-léeg nga defee ne nit da lay nëbbu ay waxam fekk na déedéet kenn daa mënatut a denc dara te danaay wax ni kat lu waay di wax na nga ko xam wax lu doyo doyo doyo doy waar la lu waay di wax ci saw laam yi rek na nga ko xam léegi nit ñi dañuy loqutu rek boo duggee ci kër jàmbur daal loo fa xam dong ba man ko nett li di ngay wër te dañ la digal kat soo duggee ci kër jàmbur bul def fu ne nga sànni fa sa yaay yi gët ndax man ngaa gis xawra xawra bu ñu koy wax ñu bari dañuy defe ni rek mooy mooy mooy mooy ci yaramu nit déedéet xawra mooy lépp lu nekk ci biir kër gi rek te borom kër gi bëggut keneen ku dul moom gis ko ak njabootam loola xawra la mooy lu lépp lu nit bëggut keneen gis ko rek loola xawra la xawra du caagee ni mooy cëri nit ki déedéet xawra mooy lu nekk ci biir kër gi wala ci biir néeg bi te borom bëggut keneen gis ko ku dul moom waroo ko def am nañu bala ñoo am jàmm suñ duggee ci këru jàmbur danañ wër xool saal bi nu mel suñu yàkkamte nag génn ba nett li gi ko saalub diw ba saalub diw ba saalub diw ba am na ci ñooñ fa nga leen yamloo sax duñ fa yam dañuy daal di bëgg potoxlu ne man de damaa bëgg a yeesu wala damaa bëgg a def nangam dañ kumpa képp bëgg a xam li ci sab néeg ak la ca sab saal demee buñ génnee di di ko nett bi bu fekkee koo xamante ni tey nee na la ah ñëwal dem fële da ngay defee da ngay bañ mu dugg ci salle be salle de bain te as gor xamoo lan lay dunde bu la bëggee orienté feneen sax da ngay defee da laa xeeb fekk na déedéet xawaram mi ngi ci néeg bi te bëggul nga gis ko te yow loola du sawal la mooy taxit rafet njort lu am solo la ndax da ngay gis koo xamante ni néegam da ngay defee ni mi ngi adduna ak li ci biiram te boo duggee benn mat laa rek nga fay fekk bu tege te bëggul nga gis loola ndax jullit ñi léegi kenn wóoratul sa bopp ndax day defe ni loolee boo ko gisee da nga yàkkamti ba génn dem nett li ji ko man ngaa gis nit ko am salle de bain xamoo nu mu ko bindee xamoo nu mu ko tërale xamoo nu muy suturloo ci biir soo dikkee léeg-léeg man naa doxante yow ngant loo xam da nga naan kii de man xamu lu muy bañ ci ma dugg ci néegam bi xamu lu muy bañ ci ma def nangam fekk amaana moom moo ko xam waaye yow da ngay rafet sa njort ci moom ndax am na ñoo xamante ni kat moomuñu seenu làmmiñ lépp lu ñu gis rek buñ génnee nett li ko loolu tax na jullit ñu si bari kenn wóorutul sa bopp kenn wóorutul sa morom da ngay toog ak nit wax ak nit ci sa biirub néeg sa yitte bopp joo xamante ni da nga cay séntu ci moom ak saafara lu muy def génn weer la yow day boo xamoon diw li muy dund maara day tàlli bari na tey ci góor ñi bari lool it ci suñ mbokki jigéen ñi kuy sëy ab sëyam am cay jafañ-jafañ am cay naqar-naqar bëgg ku ko teg ci yoon bëgg ku ko muñ loo bëgg ku ko góorgóorloo bëgg ko ko wan yoon woo xamante ni su ca jaaree dana mën a déggoog borom këram dana bëgg dana mën a déggoog waa kër ga mu nekkal mu ñëw wax la nga gën koo jaxase gën koo ràngati lu baax la nga ko war a wax lépp doo ko ko wax dangaa ñàkk fulla dangaa ñàkk bopp dangaa xamutoon rek waaye kooku xam nga ne boo ci duggoon nangam léegi kenn kenn kenn dematut ci jullit gaaral ko mbirum boppam moo xam ni war na la caa teg ci aw yoon wu lay jariñ mu teg la ca déedéet da lay gën a gëlëmal gën laa sànq te loolu lépp lu ñu war a mata lu mata bàyyiwaat xel la waaw da ngay am sa soxla di as gor di jullit bëggoo kenn xamal la ka nga wóolu dem ca moom ne ko ah man day damaa am yitte sàngam man day nangam man day nangam man day nangam bu ca mënu dara xam nga lu cay doon man manam weer la ci nit ñi rek diw mii ngay gis day bërki démb la ñëw fii di ma jàmbat nangam bërki démb la ñëw fii di ma wax nangam bërki démb la ñëw fii nangam ak nangam loolu lépp di jikkoy jullit jullit da daan xam ci mbokkum jullitam lu dul noona loola da koy yóbbaale ci bàmmeelam waaye bindeef du ko ma sa yëg loolu nag boo seetloo jikko yooyu yëpp léegi ni tumurankee tumurankee tumurankee tumurankee tumurankee la te loolu it lu mat a bàyyi xel la ni ma waxee léegi léegi wax lu dëgg du dara ci nit ñi te wax lu dëgg day fa mu yegg ni ma ko waxee léegi dem na dayo kon nun jullit ñi war nañoo xoolaat sunu bopp bu baax a baax ci sunu dundin ci sunu doxin wattandiku worante ci sunu biir ci sunu digg ak sunu borom ci sunuy diggante muy ñaari way dencante muy ay mag ak rakk muy ñu dëkk ci koñ bi muy ñu nekk ci barabu liggéeyukaay yi ci marché yi ci bureau yi ak ci lépp kenn ku ci nekk war naa xoolaat aw toogiinam ak doxinam méngale ko ak doxinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi nga xamante ni ñoom la yaroon ci diine ñu leen cay roy ndax loolu kat mooy tax yërmande ji ñuy wax ni moom la loolu mooy doon yërmande ndax su boobaa kat jikko yooyu suñu ko jëlee képp ku am ak jaaxle ci wàllu am-am soo demee ci sa mbokkum jullit nii ma waxee léegi noonu ñu doon gënalante sa mbokkum jullit gënal la sa bopp soo boobaa jullit boo fekk mu yor ab junni nga yor soxla junni da ko yëkkati teg ko ci sa loxo bu dee lu mu lay lebal la dana ko wóor ne lii mu lay jox dana ca jotaat ndax sa jikko ndax saw melo ndax saa la la jàpp saa su la bàyyee rek da nga dem delloo ko xelam day dal ca loola bu dee lu mu la mën a jox ngir yàlla it dafa la koy daal di jox sa mbokkum jullit moo waxal ci say jafeñ-jafeñ dana la muñ loo bu dee jigéen bi sëy la nga am ca ay jafeñ-jafeñ boo demee ci góor wala nga dem ci keneen sa mbokkum nawlem jigéen dana la ah muñal adduna kat amul solo dundi ko lu gàtt la indi la baat yu rafet yoo xamante ni soo delloo da nga fàttala la waaye ñu ëpp kat koo ci jàmbat sa fitna dana la ca tegal fukki fitna nga boole ko juróom-ñeenti fitna nga boole ko fitna ba nga ko doon indi muy fukk waaye bu njëkkoon kat mbokkum jullit fu mu dajawaan ak mbokkum jullit lu mu fa mën a yóbbaale ci aajo joo xamante day laaj ñu dolli ko xel wala aajo joo xam day laaj ñu dolli ko am-am lu ci ne dana ko fa jële wala bu fa jëlewut ñaar yépp dana fa jële lenn ndax dana fa fekk jikko ji rafet jum mën a jëflanteeg moom ba aajo yooyee mu am bu ko mënta faj dana ko dalal waaye léegi duñ faj sa aajo te duñ la jox ak dal loolu lépp war nañu dellu siwaat nun jullit ñi sunu xel dellu siwaat sunu bopp ci njàngalem yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te nit ki li muy def mu di ko def te yàlla rek a tax li may waxtaane waxtu wu ne booy xool ndaje yi lislaam yi wala ndaje yi ñu tudd lislaam yaatu na lool ci réew ba foo ko takk rek weesu na ko waaye la ca ëpp wanewu rek la adduna rek la bakkan rek la bànneex rek la waaye yàlla mën koy tuddi amu ca dara mu wax te loolu lépp it war na ko seetaan mu kàllaaf mu ne war ngaa xam sa diine te boo ko xamee nga fa nga di ko jëfe te yàlla tax yonent bi kat da doon yar saxaaba yi ci jikko ji rafet di ko jëmbat ci ñoom di ko suuxat ci ñoom loole it ba tey ñu wuutu yonent bi muy gaa yu baax yi loolu mooy seenu liggéey ci bindeef yi yonent yi ay docteur lañu nit nit ñu baax ñi ñoo leen wuutu képp koo xamante ni yëg nga ci sa xol rëy añaan néew jëf ngistal wax lu du dëgg fexee la am kilifa bu mat kilifa goo xam ne soo taxoo moom mu di la digal ngay def mu di la tere ngay bàyyi yooyu da nga yëg na muy dañe ci yow te doo ko sikki sàkk waaye ñu ci bari léegi amatuñ ay kilifa ñu ci bari léegi dañ leen di tudd ay kilifa ci xaada waaye doonuñ ay kilifay diine kilifa diine mooy koo xamante ni soo dajeek moom la diine santaane lu la ca jafe woon ci nga war koo def dana la yomb kilifa diine mooy koo xamante ni lu la lislaam tere woon te jafe woon la tere nga dana la yomb nga mën koo bàyyi ndax foo toll daf lay fàttali foo toll daf lay delloosi foo toll day nàmm sa xel day nàmm sa xol day nàmm sa ruu loolee day daal di feeñ ci say cër ñu sawar ci jublu yàlla ak dox jëm ci yàlla loolu mooy kilifa diine waaye léegi ñun ñi ci ëpp kat kilifay xaada la ñuy topp léeg-léeg ngay dégg ñu wax ci rajo bi kilifa yi maa ngi nuyu kilifay diine kilifay aada yi kilifay aada yi ñuy wax tey mooy xëy na ñu yor wàllu adduna ji waaye buñ duggee ci wàllu diine it léegi dafa mel ni nit ñi aw sant la ñuy topp ak diw diwa ko jur ak diw diway maamam waaye toppatuñ nit ngir defaroo te nit bu daan topp nit daf koy topp ngir defaroo bu loolu amut topp ko lu am njariñ topp lay doon boo xamante ni bu ëllëgee yàlla ne teewoon du ma topp diw rek moom moom moom moom la cay fekk sëriñ bi mag ñi ko doon dikkal dafa am lu ñu manqué woon lañu manqué woon mooy jikko ju rafet mooy sëriñ bi tarbiya leen rikki ci seen ruux yépp melo woo xamante ni dana nekk kiiraay seen diggante ak seen borom dog kiiraay yépp marale leen ak seen borom subhaanahu wa taala Cheikh Ahmadou Mbacké Haydara ca Daaru Salaam ku baax ki da ko woo ba mu dem ci benn tóokoo mu ne ko Ahmadou mu ne ko Mbacké mu lalal ko dem defal ko mu jàpp julli mu ne ko dama laa bëgg a maral dama laa bëgg a teg ci siraatal mustaqima marale la ak sa borom bi mu joxe ñi nii ci penk bi muy seen kaaba gi loolee la sëriñ bi daal ànd ak mag ñi waaye daw ànd ak mag ñi comme nit ñii nii nu ànd ci suñu bopp diw diwa ko jur rek diw diway maamam rek diw nangam la sant rek déedéet dafa am lu ne ci yow loo war a xool nga war a wut ku la ko dindil ku la jaarale ci yoon woo xamante ni loola dana dañ mu yoonu tarbiya yoon woowu nañ ko bàyyiwaat xel yonent yi ci loolu lañ doon dox ñi leen doon it ci loolu lañ doon dox yoonu tarbiya woowu nañu ko bàyyi xel bu baax du lu mën a ñàkk mukk ci ab jullit mu am kilifa goo xamante ni dana koy orienté di ko teg ci yoon woo xamante ni dana ca gis boppam moom du doon yi waxi kese du doon diwa ma neex déedéet waaye dalay teg ci yoon woowu boo ca awee te sellal ko da nga yëg jikko yooyu yàlla gërëmul ñu di wax rasaa'ilal xalb ni muy daña ci yow da nga yëg it jikko yi rafet it ni muy dollikoo ci yow ci doo ko mën a nattal ne te loolu yi mooy tax nag sunu adduna jag mooy tax sunu alaaxira jag mooy sax sunu diggante sunu dund ci sunu diggante rafet mooy tax sunu dund ci sunu diggante ak sunu borom it mën a rafet kon njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu toll war nañ koy fàttaliku war nañ koy bàyyi xel bis bi it bu Serigne Touba fonkoon la ndax mooy bis bi nga xamante ni mooy bis bi mu daan defal boppam di ci génn it di ci waxtaan ak mbooloo mi it di leen ci ñaax di leen dolli di leen fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu doon dunde ak nanu ko war a bëgge nga xamante ni noonu lanu ko lislaam sante yonent bi daf na war a gënal sunu jëmm daf na war a gënal sunu alal daf na war a gënal sunu njaboot sëriñ bi nag moo taxaw taxawaayu yonent bi moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu ko def rek noonu lañ ko war a def ñun ñëpp ba ku jógee ca jataay ba soo delloo da ngay daal di yeesaat peq du doon jataay boo xam ne dañ fay nekk nit ñay woy ak a wëndeel ak a fecc ak a def yu kenn xamut la ñu war a def bu ñu dajee ngir yàlla nañuy waxtaane yàlla mi nu fi indi te bàyyi nu fi te di nu fi jële te kenn ëllëg da nga daje moom ba jàpp ne yow rekk la bindoon loolu mooy suñu waru gar ci jataay yu mel nii ak ci daje yu mel nii ber dañ fiy def mooy mbooloo fu ñu daje ngir fàttaliku yàlla ngir tudd yàlla ngir bàyyi xel seen borom lañ cay aajowoo képp ku leen ci féete loolu jëmm yàlla moo ko defal waaye defaloo ko mbooloo moomee kon loolu yoon buñ ca dëni ni ku ko def am ko ca mën na ko ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak tawfeexam léeg-léeg nag nga gis ñoom dañuy jàpp ne loolu bi daal la lislaam lu ci baree baree baree bare ay cuppi ko am na ca waaye cuppi koy day jëm ci ak gën a defar rek ndax jumtukaay yu bees yii kenn xamu ko woon kon bu ñu dajee ngir fàttaliku guddi gi yonente bi sallallahu guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam feeñee jamono fàttaliku jikko yi rafet fàttaliku la mu dajoon nun ñii di dund ni ci kaw suuf te téye lislaam téye ak dëgg aku njub lu ñu ci mën a fekk war nañ koo mën a muñ ba ci sunu bakkan bu ci sunu bakkan desee sax alhamdulilahi rabbil alamin lañ war a wax bu ko defee loola ñu mën di ko fàttalante fu ñu toll di ko mën di fàttalante fépp fu nu nekk bis bii mooy bi Sëriñ Tuubaa daan defal boppam bis yi ñu defaat gannaawam yépp it bii bu mu digle la ngir ñu di ko def waaye booba it kenn ku ci nekk nga di ko defee sa kër di ko ci santale sunu borom ci loo am ci diggante ginaar ba ci gëléem waaye ci jamono boobu it sa kër rek nga koy def ak sa njaboot ak ña nga dëkkal bis bi gannaaw bi Cheikh Mouhamadou Fadil moo ko woote Touba bañ tuddi ko màggalu Touba màggal bu njëkk gi Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko def loolee mooy ñibbi gi sëriñ bi ñibbi Touba taxoon muy woo bokki taalibe yi fu at ma dellusee bu ñu dajee it nii rek delloo leen ci yàlla fàttali leen seen borom fàttali leen it sëriñ bi mooy kan ak ban taxawaay la taxaw ak ni mu doon yonent bi ci gindi nit ñi ak jubal nit ñi ak yéega leen ci seen borom subhaanahu wa taala ñu door a delluwaat looloolee du lu mën a ñàkk ndax doomu aadama dafay laaj ñu di ko fàttali waxtu wu ne ndax buñ ñu dul fàttali kat lu baree baree baree baree bare mën nañ ca dugg te ñàkk fàttali rek la waaye bu ñu fàttalantee day gis ko xam am na lu mu jaaju woon jëm ci lu dul noona dana ko daal di teg fa suuf wala mu yeex caa dem bu ca yeexee dem bu fàttaliku dikkaatee mën naa dem ba du ci yegg mukk bu ñu fàttalantee kat day gis ko xam defoon na loo xam ne dana ko rëcc te dana tax mu dem tuubal yàlla ca loolee te tuub googee suñu borom mën na koo nangu ndax ay jaam lañ fu ñu toll dañoo war di dëkke tuub ni ma koy waxee waxtu wu ne dañoo war di dëkke sant yàlla dañoo war di dëkke ñaan yàlla sunu borom nit ki boobu naagu mukk ci ni man daal li ma jëf wala li ma wax yàlla du ma jéggal mukk déedéet laa taqnatoo min rahmatillah inna allaha yaxfiru sunuba jamiha bu kenn naagu ci yërmande yàlla yàlla bàkkaar yépp lay mën a jéggale waaye nag ci sartub nga tuub ko ndax sunu borom kat ni mu waxee ni noonu la bégge ci tuubu aji tuub day mel ni bàkkaar munta ñàkk kon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir aaya boobu ma wax léegi nga xam ne moo ëpp yaakaar ci ab jullit yonente bi da ko dëggalaat ne su ngeen dutoon mooy yàlla it yàlla yabal fi ñu koy moy di ko tuubal mu di leen jéggal kon waxtu wu ne war nañoo dëkke tuubal yàlla te di ko jéggalu suñuy rëcc rëcc ci suñu diggante moom nun ci suñu biir it ñuy baalante ay xàq te muy dëgg ci nun te jëmm yàlla sunu borom rek a tax kon bunt gii jikko rek les ci war a fàttaliku ngir defaraat suñuy jikko ba kenn kum doon ci nun doo daw sa moroom waaye da nga ñeme sa moroom waaye léegi kenn ñemeetul sa moroom kenn ku ci ne dangay daw sa mbokkum jullit ngir lan yaa ngi ragal ay lor yu mën a jóge ci moom ci waxam ak jëfam ak meloom yu jëm si ci yow te loolu gënut as gor soo ma saa waxtaan ak moom sa sekkare da koy yóbbaale ci bàmmeelam de waaye benn mbindeef du ko yëgaat ku dul yàgg moom wala yow xanaa koo demaat ba seet ko ba waxaatal ko ko sa bopp léegi day koo waxal la doon ay yitteem mooy la nga ko wax lépp mu génn waat ko ci biti te danaay faral di wax ni kat képp léegi kuy wax ak nit naan ko lii ma la wax kat na nga ko denc ndax yow dong laa ko wax ba nga ko tëlee mën a denc yow ba wax ko kooka ne la wóor ni kooka du ko denc da koy waxaat de bala ngaa wax dara ci sa làmmiñ wi na nga ko seet na nga ko segg na nga ko xalam na nga wëndeel sa làmmiñ junni yoon mer bul ko def mukk di wax nit ki fu mu mere naanal ndox te nga toog waaye mer di wax képp ku ko wëttuwut da nga wax ba wax loo xam ni buñ la ko nettaliwaatee dugg ci biir suufa la koy gënal wala wax ja dafay des te foo ko xalaatee mu nekk metit ak naqar wu tar ci yow te duuta ca mën a ci dara ndax ci sa gémmiñ li génne mooy tax nañu góorgóorlu bu baax di bàyyi xel suñuy wax di bàyyi xel suñuy jëf di bàyyi xel suñuy melo xam naa nag wax taan wi nanu ko bëggee woon ci ak jub akuk leer akuk leeralante mënewuñ ko noonu ndax soj mi buñ soñoon mu gën a leer buñ soñoon mu gën a set waaye nag gannaaw ay laaj am na fi mu jéemantu ci rek luñ ci mën a tontu ñu tontu ko ci luñ ci am kumpa it delloo ko borom xam-xam yi noo ngi dellu du nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp tey bal xàq ñëpp tey bal xàq ñëpp tey ndokkeel kilifa yi diine yëpp te bopp ba Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Sayyidil Basir yàlla yàlla fiq aw fanam te yokk ak wéram te naalam ci lislaam yépp mu jëf ci lu kaw njortam
jërëjëf Mbacke ñu ngi santaat bu baax ci waxtaan bi ci fees dell ak njëriñ ndax yéen du ngeen wax wala ngeen def lu amul njëriñ ñu ngi tuub sax ci kàddu yi di santaat bu baax ci darajaal gi ngeen darajaalee jataay bi baaxi mbokki taalibe yi seen jëmm ju tedd ji ñu ngi santaat bu baax ci liñ ko ànd ak yow te di ñaan sunu borom di sax ci di ko ànd ak yow fu ñu toll ci bépp xew-xewu diine di la santaat bu baax Mbàkke ci dimbale gi ñuy dimbale ci sa mbaax ak ci sa yërmande ci di ñu jubbanti ci di ñu laabire ci di ñu teg ci lu baax di ñu teg ci yoonu siraatal mustaqim di la wax ne ñu ngi nii rek doon ay jaam yu xeew doon ay ñu tële ñoo xam ne mënuñu xamuñu doonte yéen jaa ngi fi waaye nag fu ñu toll rek di la féddali sunug sunug tële rek fu ñu toll ñu ngi féddali sunug tële ak sunug matadi ak sunug mënadi waaye di yaakaar sag mat di yaakaar sag sag sag ndimbal ci bépp anam bu dul konoon bu dul konoon ak ak yéen lambay ñaw lool mbàkke waaye alhamdulilah ba ñu yàlla wommatee ci seen jëmm ju tedd ji te boobaak léegi ñu ci ak ay tawfeex yu màgg te kawe ci sunu diggante ak sunu borom ak sunu diggante ak sunu borom lii indi woon jëmm ju tedd ji ngeen jàngale ko ci jikko ji rafet lépp mbàkke jàngal ngeen ñu ko la pédagogie par l'exemple jàngal ñu ko ci wax waaye jàngal ñu ko ci seen ci seen ci seen jëflante ci seen jikko ju tedd ju màgg ju rafet yoo xam ne ku takkook yéen di ko nàmbate di ko nàmpee ci yéen kon Mbàkke yal ngeen yal ngeen fi yàgg tànd biir yàlla yàlla kàttanal leen dolli leen kàttan ba li ngeen yéene ci askan wi ci jullit yi ak ci doomu aadama yépp yàlla sunu borom mottali leen ko ci gën gaa rafetin anam ndax jàmm ngeen leen yéene teraangay àdduna ngeen leen yéene teraangay ëllëg ngeen leen yéene te li ci gën a neex mooy danga ñuy yar ba noppi ne ñu nag bu leen dégg li ma leen wax waaye natt leen seen bopp na seen bopp doon seen propre baromètre li ma leen di wax wala li leen keneen di wax wala sama jëmm wala li may liggéey déedéet loolu bu leen ci natt seen bopp ordonnance yi ma leen bindal bu leen ci natt seen bopp sama clinique bi ma am bu leen ci natt seen bopp sama diplôme yi ma am bu leen ci natt seen bopp waaye yéen xool leen seen bopp ngeen natt ci seen bopp loolu ñu ko ñemee wax bari wute nga delloowaat taalibe yëpp ci seen bopp te nag ku wéet natt sa bopp nag da nga xam ne da nga xam ne xorom si xorom si naan bi kon Mbàkke sant nañ la bu baax dimbale nga nu dimbale nga nu dimbale nga nu te dimbal gi yépp mooy yàlla di nga sa mbërtal ci taalibe yi ba dara réewatul ci suñuy gët ndax yàlla koo ko def ci moom rek Mbàkke defal nga ko lépp mi ngi fi woon ñu koy dégg mi ngi fi woon ñun ñu koy wax ci rajo yi waaye taxutoon ñu am ci moom benn yëg-yëg waaye nit day dina toog ci biir néegam Mbàkke di julli di jooy loolu loolu du ngistal de loolu doon doon ñu ko de judduwaale wuñu ko de ci sa jëmm ji Mbàkke yaa koy def ci taalibe yi sant daal mënta weesu sant ba tax suñu mbokk taalibe bi nekk bitim réew moom itam yónne woon ay kàddu cant ñu déglu ay kàddoom bu ko defee ñu ñëw ci laaj bi Mbàkke kon loolu mooy kàddu yi bàyyi ko ci mbokk taalibe bi laaj yi nee na laaj bi muy njëkk a laaj nee na dafa seetlu ne moom ci ay jamono dafa doon amal ay gént ay gént yu bari waaye nag mu seetlu ne ci jamono yi gént yi dafa wàññeeku muy laaj ndax moom dafa am lu mu def ba tax gént yi wàññeeku muy bàkkaar bu mu def digganteem ak boroomam wala déet wala daal lan moo sabab maanaam mu doon gént ba yàgg géntatul
li tax mu bëgg a jàpp ne gént yi mu doon gént ba xëy géntatul dafa am lu mu def suñu borom day laaj nga xam gént yi yan xeetu gént la ndax nit mën naa gént ñu gént mu mel ni luñ ko wan la nga di ko gis boo xëyee gis ko loolu am na nit ñoo xamante luñ gént gis ko man ngay gént it yàlla di la defal ay xam-xam loolu am na ñu ci aw ñu ko xam bu dee gént yoo xamante ni nag ci noonu la bàyyikoo ci sa diggante ak sa borom muy lu mu lay xamal ak yu ko nuru léeg-léeg nit ki jaar ci yoonu yàlla dana ko koy may ci tarbiya suy góorgóorlu ci tudd yàlla ak jàng alxuraan ba xam set dana am yooyu suñ borom mën na ko koy baaxe muy gént gént yu leer di am ay yëg-yëg yu leer di am ay xam-xam yu leer yoo xamante ni loolu fa suñ borom lay bàyyi ko ittaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen xam-xam boobu yàlla mën na laa boole ab jaamam mën na laa dikk yi ci gént su fekkee gént gi noonu la tëdde yenn jëf yi ak yenn jikko yi dana mujj doonaat kiiraay ci sa diggante ak loolee nga doon yëg ak loolee nga doon gis ci say jëf yooyu jëf ci lu dul noona wala looy wax ci lu dul noona ak looy melowoo ci lu dul noona mooy yoon wa nga awoon daal ba loola di dikk soo ko bàyyee yëg-yëg yooyu mën naa dem bu dee yooyu gént la bu dee nag gént la boo xamante ni léeg-léeg comme nit ñëpp rek boo tëddee gént mën ngaa xam li nga gént mën nga koo fàtte mën naa bañ a doon géntu gu aay mën naa doon gu aay loolu lu naturel la nit ñëpp daanaka dañ koy faral ñu ci bari ñuy gént dañuy faral di dem loolu léeg-léeg nga gént lu la neex léeg-léeg nga gént lu la naqari loolu moom benn def-def mën na koo bañ a sabab waaw waaye gént leer daal moom ñaare nit ku ku ku ku ku ne ci lu baax di tudd yàlla di jaamu yàlla boo xam seet am na kiiraay yooyu suñ borom mën na ko ko ñoril ba muy jot ci yenn xam-xam yi ak yenn yëg-yëg yi ci digganteem ak borom waaye kiiraay li koy fatt bàkkaar rekk la bëtub gis bët bii gis nii li koy fatt suuf benn pepp suuf rek mën na koo fatt waaye basiira muy gisub xol ba tey benn tomb jëf ju dut noona wala benn tomb wax lu dut noona mën na koo fatt boobu nekkoon ku am basiira la mën nay jëf-jëf yoo xamante ni mooy dellu muuraat kiiraay ya boo demoon ba di góor-góorlu di farlu di jihaat ak sa bakkan ba dog kiiraay yooyu yépp am na loolu boo ca delluwaatee nag kiiraay yooyu day dikkaat ndab boo ko raxasee ba mu set ah boo ko taqalaatee yaakaar naa ne aw ñoom diisu ca mën a tee dem ñoom wa ca nekkoon it mën naa doon ñoom wax ni kenn dutu ko mën a tee jëfandikoo loolu day tax gént gi day aju ci ñaar yi ma la wax rek bu dee gént goo xamante ni moom kuy jaamu yàlla la di tudd yàlla mën nay dem ba lu mu gént gis ko mën nay dem ba suñ borom di ko won mën nay dem ba kiiraayam yu bari dañ ci digganteem ak boromam subhaanahu wa taala waaye nag loolu it ñaare la koy xañ nit ki it mooy la mu doon def mu bàyyi ko bàkkaar dafay fu dafay tilimal xol nit ki bàkkaar bu mu def rek day nekk taas ci xol bi soo defaatee beneen te tuuboo boobu beneen taas da say dooleeku su yàggee xol bi day dem ba xatama law ala xulubihim wa ala samhim wa ala absaarihim xisaawa day dem ba nit ki booy waxtaane yàlla du ci am bind yëg-yëg bu romboon fii ñu jàkka ji ni nodd du ci yëg dara looy wax ci yàlla du ci yëg dara da nga koy fatt da nga koy tànqal da nga koy sonal kuy wax ci yàlla da koy sonal du ci bëgg a dégg dara du ci bëgg a xam dara waliyaasu billaah ndax ab xolam dara lu dara dara dara dara lu koy tax a yëg loola nekkatu ca dara lu koy jokkaleeg sunu borom ci wax ak jëf ak melo yu muy gis wala lu muy dégg duutu ko mën a jokkaleeg borom ma loolu mooy taxit su boobaa nit ki dafay ñàkk basiira dafay ñàkkit xeeti xam-xam yooyu su fekkente ni nag comme gént yu mel ni sàmmaas gi rek la boo tëddee rek gént mën ngaa fàtte mën ngaa gént loo xam mën ngaa gént loo xam ne xamoo ko loolu moom lu naturel la daanaka ci ñuy gént am na ñoo xam ne ñaare duñ gént am na ñoo xam ne am na jamono boobu ci la ñu gën a bari ay gént am na ñoo xam ne seen i gént man lay sore loolu dara lu aay nekku ci.
jërëjëf Mbacke tontu bi leer na nañ jërëjëf Mbacke kii mu ne Ndéné Diouf la tudd ñu ngi leen di seetaan nee na Cheikh Ahmadou Mbacke Mahoul Hayaat yàlla na fi yàgg lool te weer mu ne billaay Mbacke sa dund bi am na njëriñ depuis Santiago Santiago Chili. kii tam mu ne laaj bi mooy ñaareelu laajam mu ne ndax dafa dégg ci benn borom xam-xam mu wax ne ñaari jëm yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu am tuut tànk te àndaguñ ci sëy. mu ne ñaar ñooñu kenn mënu kenn mënul daganal seen diggante ñuy sëy ñu ñu ñu kenn mënul daganal seen diggante muy laaj loolu lan la ci lislaam wax.
moom dafa ubbee wala dafa laaj loolu laa bëggoon a xam dafa ubbee wala dafa laaj xam xam nga dani ñaar ñi am doom mënatuñoo sëy loolu la wax. am dani ndax ñaari nit bu ñu amee doom danañ wëlbatiku man leen a maye wala déet ah ah waaw kay ni nga waxee nag day mel ni moom daa ubbee ba noppi moo tax ma ne la ndax daa ubbee lu lu lu xaraam du xaraama lu dagan ñoom bàkkaar lañ bàkkaar lañ def li ñu def bàkkaar la loolu gaaree nit ba suñ boroom dogal kooka am doom ba féex ba set mën na ko ko may bu dee ñuñ war a mën a baaxoo maye ci sarti lislaam la waaye am maa doom ja dox ci seen diggante walla mooy yàlla ga dox ci seen diggante tax ñu ni mënatu koo takk déedéet mën na koo jël waaye nag faw dañ koy bàyyi ba mu am doom ba set wecc ñu door ko ko may la ñu def nag bàkkaar la seen diggante ak seen borom bàkkaar boobu nag ku ko def dafa am yaar lu ci lislaam santaane ki am soxna sëy ak soxna su mu tëkkut ci sarixatul islaamiya dañ ko war a rey ku amut soxna sa yëg soxna kooku dañ koo war a dóor téeméeri yar waaye loolu it balay am ay seere dafay am ay seere day am ndax nit tey xam nga góor moom mën naa def loo xamante ni mën naa bañ a feeñ bu seere yi amut jigéen nag xëy na ni ko suñ borom bind am na lool su ko dalee loola dafay feeñ ndax yàlla moo dogal loolu waaye diw fekk nañ ko muy def nangam mu am ñeenti seede nga am soxna ñeenti seede yu bàyyi koo wut yu bàyyi koo ci béréb yu bokkut bu ñu xamante it bàyyi ko wuñ fu ñu jóge loolu taxu leen woon a jóg dañ caa daje ñoom ñeenti ñépp ca mbir ma loolu it lu mat a bàyyi xel la nit bala nga koo jam ci lislaam na day def nangam da nga caa war a am ay seede yu wéri wéri wéri wéri wéri loolu la lislaam santaane soo ko ci amul yow dañ lay dóor ñeent ñu bàyyi ko fu ñu ñeent ñu bàyyi ko ci wet yu bokkut daja ca rekket yam ca bu fekkonte ni sax da nga ñaar ñaar nit dañoo ñëw fekk kenn bu ñëwoon fekk soxna ak góor ci benn lal muy gis kuur gi ni muy dugge ci biir gënn gi bëtam dal na ca muy gis moom su génnee wax ko dañ koy dóor moom kooku gis gisam googu wérut bu ca keneen dolli koo dikk di gis ko na mu ko gisee su ko waxee ñoom ñaar ñëpp dañ leen di boole dóor juróom-ñett fukki yar seen gis googu wérut su fekkente ni kii njëkk a gis dafa dem wooyi kooka sax ko ñaareel ki sax bu ñëwee gis ko dañ leen di dóor juróom-ñetti yar juróom-ñett fukki yar su keneen dikkaatee ñëw gis ko na ko ñooñ a gise bu ko waxee dañ leen koy dañ koy dóor moom it juróom ñett fukki yar su fekkente ni ki ko njëkk a gis moo dem wax ko ñaar ñii ba waxaat ko keneen mu bañ mat ñeent dañ leen di dóor juróom ñett fukki yar ñeent ñu ko gis ñëpp dañ ca yamanoo te kenn du ko wax kenn du ko wax sa morom ñoom ñëpp dañuy dox ba yem ca rek gise ko noonu su loolu amee ñeenti soode yooyu lislaam dana ko nangu bu dee ko amagut soxna la dañ koy dóor téeméer yar bu dee ko am soxna la des koy rey loolu lu mat a bàyyi xel la sariya nag loolu mooy lim tëral xëy na nag doxalatuñ ko ci fu bari ci àdduna ci réew mi la ca des nag mooy di tuub ak a jéggulu ñaare it nit ñi di bëggante ba loolu di ci juddu yar dañ koo gannaawal lool waajur yi taamu gi te taamu ko duñ ko jëme ci jikko duñ ko jëme ci diine danay jur loolu lépp ndax li ëpp kat ki ngay wut ku am lay ku am ngay bëgg ak ku am teraanga loolu la nit ñi di xool léegi waaye xoolatuñ borom jikko xoolatuñ borom diine te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale woon bu ngeen gisee ku leen diineem doy ak ku leen jikkoom doy may leen ko seen doom léegi kay ku leen poosam doy ku leen ab liggéeyam doy loolu la nit ñi xool ku leen këram bu baax doy ku leen wataam bu baax doy loolu la nit ñi xool waaye xoolatuñ jikko ju rafet xoolatuñ diine ju rafet te loolu it lu mat a bàyyi xel la léegi dana bokk li sabab lu mel noonu it bëggante ah naan dañuy seetantey jikko seetantey jikko nag seetante rek bu la ci kenn nax te seet moom bu xasee tàmbali benn yoon dem di seet rek loolu nag dañ ko war a daw ma tàmbalee ko ci sama biir daara jii ma nekk ci góor ñi ak ci jigéen ñi képp ku ci bëgg sa moroomum góor wala nga bëgg sa moroomum jigéen dox ca farata kooku mooy dëgg waaye damay bëgganteeg diw damay génn diw ay caaxaan képp la yow muy jigéen gi bëgg nga góor gii demal ca ay waajuram ñu may la ko waxtaanal ak ay waajuram ñu may la ko bu fekkee yow jigéen gi bëgg nga te nga gis nga ni kii ni ko yàlla binde ci jikko ak ci diine gënal na la bul xool dara ci àdduna waxtu yàlla dogalee mu war a am sutura ak teraanga su ko amee ngeen bokk ko waaye nga nangu ngeen ànd sëy ci farata si yàlla ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ku góor ki la it gis nga koo bëgg daal di cay def farata man de ku dikk fi man ne ma dama bëgg diw la ma leen njëkk a wax daal di def farata ndax bu farata amul rek. caaxaan na cee topp te caaxaan boo ci duggee baga duutul yomb de ndax dëngatut moomati sa bopp dafa am gaal goo xam ne la la ci dugal wàccewu la ca gis nga avion bu xasee décoller ba topp piste bi ba ba deqi ragal bu la taxee ne may ma ma wàcc duutut wàccati de bu wàccatee rek dafa atterrir ci beneen aéroport mbaa parale ma ci am bari na xeeti jëf yooyu nag noonu la mel koo ci xas dugg jeex na da nga jéem a góorgóorlu da nga jéem a farlu lool waaye la la ci dugalaat doo ko xam kon nag ka nga bëgg a wéyal di séqal loole di dem fexe koo takk muy sa soxna moo gën a wér mooy tax ñun ñëpp nañu bokk di góorgóorlu ci loolu doxiinu nit lu bari ak jëfi nit ñu bari taxul mbir a dagan dama nekk pari daaw am koo xam dafa jaare ci ci bokk tali bi di di laaj ne ma daal sëñ bi dafa am koo xam ne ñaar ñoo xam dañoo bëggante waaye ñoom ñoo nekk ci seen benn appartement ndax fii boo ñëwee réew mi dañ naan da ngay adapté wu defe naa noonu la ko waxee de da ngay adapté wu ma ne ko adapté wu de kon bon na. gannaaw yow boo jógee Sénégal daal yi nga xamoon Sénégal ci diine ci jikko ci woy ci jub lépp daal yow da nga ko fay wàcce rek na tubaab yi dund rek ngay dund da ngay daal di adapté wu rek nañu dund nga di ko dund bàyyi fële sa diine te ñoom la ñu yaakaar ëllëg. la nga yaakaar ëllëg ñoom yaakaar bu seen lépp jàpp nañ ne tey la ma ne ko ah ñaari mu kàllaf yu bëggante kay yéen a ngi bokk nekk ci benn appartement kay du dund la ngeen di dund te ngeen a fas moo gën a gaaw di waaye gis lu dagan loo mën a def ci lu gaaw ba noppi dëkk ci lu la mën a jural fitna ëllëg loolu ab jullit du ko def loolu gënut mooy tax nañuy gaaw ci sëy yi way jur yi nañuy seet jikkoog diine te bañ di xool alal képp ku bëgg soxna ngay ndaw xoolal ki nga bëgg nga dem waxtaan ci ak way juróom bu ñu la mënee dimbali ñu def ko ku ci ab doom ju mat a am soxna jàppale ko dimbali ko mu teel ko am du wàññi dara wërsëg yàlla mooy ki ko yore waaye am na ñoo xam ne seen doom day mat a am soxna njariñ la leen seen doom di amal ci am am loola la ñuy fiire ba tax fu mu ne bàyyi damaa bëgg soxna nga ne ko taaxalul ba ca kanam sa njariñal bopp képp yaay damaa bëgg soxna nga ne ko taaxalul ba ca kanam sa njariñal bopp képp wala kii ngay bëgg nangam wala kii ngay bëgg nangam yooyu yépp nag mooy jur fitna yu baree baree bare léegi ci société bi yar daal mooy li nga xamante ni moom la ñu manqué te war a delluwaat nag ci ab yar bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñun ñépp te di ci góorgóorluwaat tey tuub bu baax fu mu toll kon li mu laaj la def nañ bàkkaar waaye bàkkaar boobee tëruwu réer a mën a ànd ci lu yàlla daganal ci seen diggante waaw kay jërëjëf Mbacke kii tam sunu mbokk internet yi la yi topp direct bi mu ne kuy xeesal ak defar teint mu ne lan la ci lislaam wax
waaye daal yow xam naa ne yaay laaj loolu lu ne damaa bëgg jigéen ñi dimbali ma ci lan mooy defar tee ak lan mooy tee sax man tee laa xam tee mooy lan baay tey mooy yaram ah yaram yaram yaram mooy tee bu dee bu dee yaram mooy tee rek defar yaram baax na ci ni ko lislaam santaane ci ni ko yàlla bindee xeesal moom dafa xaraam am jullit du ko def te boo xoolee sax léegi dem nañ ba sax ñiy dund adduna ak ñiy dox ci wàllu yëg yaram sax fan yii dégg naa ñu ne dañuy tere sax ñuy publicité xeesal ci tale yi ak ci rajo yi kon xam nga xam nañ lor bi mooy tax yàlla moom lépp lu mu la tere rek bagg moo gën ndax soo ko bay wutit fa mu mujj ak yow du gën ndax day gis ku xool ne yaramam biir bu ñu koy xool ni di ndaw ah fu mu toll rek day ña nga naan ko yawa yawa yawa yawa yawa mu topp yawa yawa yawa ja rek di gën a xolli ah boo dee ba ca kanam ñu ne du yow de mooy tax loolu nag lu ma ta bàyyi xel lu amutu mujj dafa mujj tàmbali nit day tàmbali loo xamante ni am na ak mujj waaw waaye da ngay gis ku doon xeesal koo xamante ni ñoom bu ñu koy wala sax ci carte yi ci ci télé bi boo koy xool ci journal bi da ngay gis ñu ci bari fa mujj ak ñoom yàq na seenu yaram yàq na wax duutul mën a tey defaru mukk bàyyi woon nag melo wi la yàlla bind da ngay góorgóorlu di sangu ba set ni nga wax di defar sa teen dara néew ci su boobaa te ba xeesal bi
jërëjëf Mbacke kii mu ne asalaamaaleykum mu ne yàlla na fi yàlla na fi ku tedd ki yàgg lool mu ne dama doon laaj ndax gis yàlla am na ci àdduna
xam nga nit moom li ëpp solo ci moom ci li nga doon laaj léegi mooy set soxna dafa war a set ku am say njaboot jàngal leen ni ñuy sete loolu mooy li ëpp solo lépp waaye boo xoolee baat boobu nga wax sax muy xeesal day loo xamante ni sax ënduta ko set ndax nit am na lu muy def ab deram noo xam ni day mujj dafay am xet te loolu bokkul ci ak set te set dafa am solo ci góor ak ci jigéen nit day sangu ba set di sol lu set di xeeñ lu set di nekk fu set loolu la suñu borom bëgg gis nga nit ku set di xeeñ lu set koo gis rek danga koy bëgg waaye nit ku ñàkk a toppatoo boppam it ki set muy góor muy jigéen dafa am lu muy sabab am na ku ma doon dénk ma ne ko muy ñaar way dencante ma ne ko gis nga set day yokk ak cofeel gi waaye ñàkk set day wàññi ak cofeel gi kon set rek dafa am solo nit dafay fexe di set ci léppam set boo gii nag na tàmbalee ci xol bi dooru ñëw ci cër yi waaw mooy tax loolu mooy di am solo loolu nga laaj nag ndax li yàlla des koy gis fii ci àdduna manes na koo dund manes na koo yëg manes na caa xam dara ndax suñu borom dafa wax ni xam leen ma njëkk ngeen may jaamu am na ñooñ nag danañuy woote ak gis yàlla danañuy woote ak xam yàlla waaye ak ca ca ñoom it nag nañu ko dégg ak nañu ko xame ñoom ci seen wetu bopp ndax xam nga mën ngaa daje nit mu ne la man gis naa yàlla waaye lam gis ba ni loola mooy yàlla bu la ko bu la ko waxee yow mi nga xamante ni bu wuuteeg sa pas-pas da nga xam ni kii leneen la gis ci yow waaye gisul yàlla sunu borom ndax fi mu ne yàlla kat réew moo dem ak diine joo dem dafa am ñoom nu ñu fase yàlla ak nu ñu ko jàppe tey fi mu ne am na réew yoo xamante ni boo fa demoon maanaam mala ñoom dafa mel ni mooy yàlla ci ñoom am na ñoo xam ne jant bi kooku boo nekkoon maa ngi gis yàlla bu nee la maa ngi gis yàlla ci yow yàlla mi mi ngi mi ñu la jàngal yar la ji xamal la ko bu nee la maa ngi gis yàlla dalay jaaxal fekk moom yàlla mi mi ki mu jàpp li mu jàppe yàlla wala ki mu jàppe yàlla kooku loola la gis loolu mooy tax diine loolu xam nga mën naa génn diine lislaam waaye ci biir diine lislaam it am na ñu ciy woote ak gis yàlla waaye ndax ñoom la ñuy woote ak gis yàlla yow bu ñu la wonoon loola ndax dana doon yàlla ci yow wala déet ndax ñi koy woote yi ci ëpp li ngay wax ci seen jëm ci seen jëmmi bopp jii la ci seen jëmmi bopp la ndax am na ñoo xamante ni ci wàllu mahrifa dañoo jàpp ni yàlla mi ngi ci nit naam inna laa xalaqa aadama ala suratihi waaye ñoom nit lañ jàpp ni mooy yàlla nit nag mooy kóotaayu yàlla ci kaw suuf xaw ma ndax nag ñoom dañoo jàpp ni kii wuutu yàlla mooy yàlla wala déet waaye li ëpp daal ci ñoom liñ lay wax mu lay jaaxal lépp ci seen jëmm bopp jigéen ko mën nañ laa wax xaras mën nañ laa wax kursi mën nañ laa wax lawhul mahfuz mën nañ laa wax juróom-ñaari asamaan yi mën nañ laa wax juróom-ñaari suuf yi mën nañ laa wax lépp waaye lu mu ci doon nga dégg ñu di ko wax boo ñu demoon ba di la ko bëgg a leeral dëgg ci sa jëmm ji lañ la koy leeralal loolu nag ki koy dégg tey dox ci yàlla ju set nga toog nit rek mu ne la man de gis naa yàlla gis naa xaras damay dem xaras ak a dikk damay dem kursi ak a dikk yàlla mën naa la ko yee mën naa la ca àggale ci benn waxtu wala ci benn minute loolee day bukkut ak lañ xamoon ci man ak nañ doon dunde donte nag yàlla dana taxañal ay gaa yi yoon wax ndax yooyu yëpp boo seetloo nag ñi la koy wax boo leen nattee ci wàllu jikko duñ dem te yàlla jikko la gën a soxla ci nit képp ku ne ne àgg naa ci yàlla natt ko ci ay jikkoom rek képp ku ne ne maa ngi gis yàlla wala xam naa dara ci yàlla natt ko ci ay jikkoom rek waaye lii ma la wax daal boo duggee ci tomb bi mahrifa dana ci am ñoo xamante ni yàlla ji ñuy wax seen jëmmi bopp ji la arasa kursi yoo xalam ak yépp fii lañ la koy wax aljana ak sawara ak lépp yi fii lañ la koy wax waaye du bokk ak yow nag melo wa nga ko xamee woon ak nañ ko doon dégg ak nañ la ca yare woon ba tax na mën ngaa toogu nit ñuy wax ci yàlla nga bokk nga jàpp ni niñ la yare yéen a bokk aw yare li muy wax noonu la te fekk nag loolu ku baax ki wax du caa génn lépp luy fuur rek di saabu de du caa génn lépp luy leer ci asamaan it di jant wala muy weer du caa génn lépp luy nuru nuru dara rek loola nangam la du caa génn lu ko tumbalu rek miskit la loolu lépp ba mu koy leeral foofu ci mujjug masaalik loolu la ci jublu woon ba nga xam ni da ba nga am ak ràññee am ak xam ci mbir mu man di doon bañ gis loo jàpp ni rek jàpp ni lañ la wax noona la te loolu lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatu na ci suñ biir ci suñ biir réew mi mat a bàyyi xel lool ndax nit sooy jóg di wut ab sëriñ dafa mat a xool dafa mat a seet dafa mat a segg te li nga wax léegi nit sa sëriñ bi nga àndal doo ko natt ci ci jëmmam yow ci yoon wi ma la wi mu la awale na nga cay dolli koo loola ngay xool fan nga tolloon ak fan la la jële ak fan la la indi loola ngay xool loolee nag wutee dëkk da nga dem ba yëg ci yàlla loo dul mën a wax ci saw làmmiñ da nga dem ba xam ci yàlla loo dul mën a wax ci saw làmmiñ waaye nag boo génnee rek gis xale bu ndaw wala ku mu doon maa ngi gis yàlla maa ngi dégg yàlla te kii lu ko neex def lu ko neex wax ab yaram sax mëtagul njàngam ci diine sax mëtagul muy ngoro si ndaw xëy bëgg lay wax loo xamante ni kenn mënu koo dégg loolee lu mat a bàyyi xel na te jël na ci gone yu dul jeex te day mel ni kuñ ci jël dëpp la duutu yomb te loolu waras na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax day duggaat ci li ma doon wax léegi moom it bokk na ci gaal yi nga xam ne ku ci dugg wala avion yi nga xam ne ku ci dugg bu xasee at bu xasee décollé jeex na wàcce la ci duutul yombate ci fi nga nekkoon feneen rek la lay yóbbu waaw yooyu yëpp war nañ ci yar nit ñi bañ di ko xam ndax da nga da ngay nit da nga ànd ak ab sëriñam mu di ko yar ci yàlla ju wér ju set nga dajal nit rek mu ne nag maa ngi gis yàlla di la wax lu mel ni la la sa kilifa koo di wax ci mbir yàlla nga jàpp ni yéen a bokk lu ngeen di wax te bu ngeen demoon ba ca kanam mbaa nga toogoon na ku ëpp kooku xam-xam da nga xam ni kii li mu lay wax bokkut ak yow li mu lay wax waaw mooy tax nag sëriñ bi ba mu indee nitu yàlla yi dafa indi ñi leen di nuru nurulu te duñ ko ca masaalik ca mujj ga ay nitu yàlla piir am nañ waaye ñu leen di nuru nurulu ba boo leen gisee def ni ñoom la it am nañ te boo yemee ci ñoom dugg ci dëgg dëgg ci ndëgg sarax wala xiyaasu billaah na nit ki ràññee nag lépp ni ma koy waxe day dellu ci boppam ak jikkoom aku meloom aku doxinam ki nga àndal daal nga xëy ànd ak moom nga gont nga yëg adduna tàmbali di woyof ci sa xol ndax ni mu la wane ni du kër guy sax fay sax ëllëg la wiññil la rëy wiññil la iñaan jox la ndigal nga di ko jëfe nga gis yooyu yëpp na muy dañe ci yow gis jikko yu rafet yu baax yi ni muy tàbbee ci yow loola moom yoon la boo ko toppee rek mën na la yóbbu ci xam-xam yu kawe kawe kawe yoo xamante ni doo ko sañ a nettali doo ko sañ it wax ku ca tollut du ko mën a xamit ku ko yëgut doo ca mën a waxtaan ak moom
jërëjëf Mbacke Mbacke kii itam dafay laaj mu ne dafa bëggoon nga waxtaanal ko ci Serigne Abdou Khadir Jeylaani da nga wax ko itam ku bëgg a mel ne moom nan lay def.
Mawlana Cheikh Abdou Khadir Jeylaani moom day ci nitu yàlla yi nga xamante ni suñu borom cëral na leen cër bu màgg cër bu kawe bu bàyyi koo fa moom. رضي عني سبته الجيلاني عليه رضوان الذي أحلاني loolu ku baax kee ko wax bu demee nag ba ni diw gërëm na ma ne sëtub yonent bi la sallallahu alayhi wa sallama loolu moom doy na ci xam le bayit woowu rek doy na sëkk ku sëriñ Tuubaa ni gërëm na ma boole ci ne sëtub yonent bi sallallahu alayhi wa sallama la kooku ab dayo moom dem na kaw dem na ci kaw dafa am nag ñaari cër yoo xamante ni benn moom yàllaa koy cëral nit nit mënu ko cëral boppam radd yoo xam ne surtout Jaylani surtout yonent bi yàllaa koy jagleel nit waaye du nit mën a fàggu de kon loolu xam nga boobu cër moom ah ku ko yàlla deful mënu koo am ndax dafa am cër yooyu fàggu téef la gis nga nun ñi toog doon ay nit nit giñ doon nekk giñ nekk ay nit fàggu téef mayunu ko coobaree sunu borom la xar ya ak bëy ya ak fas ya ak ya ca desit doon gañ doon loola du seenu yëfus déedéet day coobaree sunu borom nun ñii du sunu njàmbaar waaye day coobaree sunu borom ak fàggul gum nu fàggul nu doon ko la ca des nag ba tax mu ni gërëm na ma du caa génne sët gi mu nekk sëtub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek a tax déedéet waaye nag dafa jaar ci yoon wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ba yegg ci yàlla yàlla jagleel ko ay maqaama yu kawe fa moom ba tax képp ku mu gërëm yàlla gërëm la képp ku mu gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm la képp ku mu gërëm suñu borom subhaanahu wa taala gërëm la mooy tax ku baax ki wax loolu mu wax kon lañ cay wax ca moom moom loolu la nees bi def ba àgg ca moom nag ah loolu coobaree suñu borom rek nag xanaa coobaree suñu borom rek ndax daraja moom yàlla koy joxe ca ku ko soo mën na la ko jox boo jaaree ca yoon wax loolu lépp wala tuxassis fadla rabbin xat xalaa bi si taxaddumin faqat fatëj xalaa bul jàpp ni kat ngëneeleel yàlla ne jiitu woon yóbbu nañ ko ba mënatuma caa am dara déedéet fu ñu ne la nit àggoon na fa ci yàlla rek su nit defee yitte aku parlo mën naa àgg foofu ndax jamono Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Seyxina Ahmad Tidiane feeñu butoon kilifa yu bari ñu leen di tudd ci wàllu tasawuf te boo demee ci yeneeni réew fekk fa seeni jëf ak ay junni junni junni junni nit ñuy nàmp ci seen leer feeñu guñu woon gannaaw bi lañ feeñ réew mii bi fi Sëriñ Tuubaa Xadimal Mustafaa di wàcc booba ci jamono booba bi muy wax lii mu wax booba ñooñu ñëpp ñi leen topp jàpp nañ ni kenn ku mel ni ñooñu mënatut a am te ku ne xam na ni day Mawlaana Seexul Xadim xarxu xaadala ci sunu borom baana li kulli man lahu mahqulu anna wasilati huwa rasulu ak feneen fu mu wax ne it képp ku amum xel xam nga ne kiimaan laa ci sunu borom te ñoo ñaa ko jiitu te dangay seet li ko sunu borom bi subhanahu wa taala defal ci ay tawfiq kenn mënu koo misaal doomu aadama te fu ñu xëyee loola di gën di feeñ di gën di fës di gën di yokk zaahiran wa baatinan foo gestu di ko gis te jamono bi muy door a feeñ day ñi ëpp jàppoon nañ ñi ñu jiitu woon moom kenn du mënatu mel ni ñoom du tee sax ña tumput ci am njàngaleem loola la ñuy fas ba tey ndax loolu it mooy ëdduna ba tey ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk muy dikk ah christianisme jàppoon nañ ni keneen lu tudd dikk moom Seydina Isa rek moo tëj bunt bi moo taxaw ci bunt bi yàlla mooy doomi yàlla ku jaarut ci moom doo jàll loolu mooy seen pas-pas ñoom li lislaam di màgg màgg li muy rëy rëy rëy li muy am am doole li muy tasaaroo tasaaroo tasaaroo ñoom gisuñu ca loola dara Seydina Isa rek lañ gis waaye siif yi tamit boo seetee jàpp nañ ni yàlla moom buntum mu Seydina Muusaa moo ci taxaw moo ci mu jiit ku jaarut ci moom dootoo jàll jullit ñi ah nun jullit ñi loolu liñ jàpp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw ci buntub suñu borom moo leen gën ñoom ñépp loolu moo nun mooy suñu pas-pas moom lañu gëm it moom lañuy dund it boo xoolee nit yàlla it bi ñuy ñëw it kenn ku ci nekk tey sa njaboot jàpp nañ yow rek la keneen lu munta doon keneen yow rek la waaye du tee nag yàlla waxtu wu ne muy feeñal ko ay nitam ndax nit ñi dañ dut mën a ñàkk mukk mukk mukk yërmande yàlla ak ku leen di dimbali ak di leen tett ak di leen di jëmale ci sunu borom subhaanahu wa taala ndax sëriñ bi kat bi muy feeñ nit diine yu bari ñi ngi fi woon waaye nag jeexit di ko suñu borom jox ak tawféex ji mu ko def ci mën a defar nit néewaana ku mu ko defal defarkat yu bari nag ñi ngi fi woon waaye nag néewaana ku daan defare ni mu daan defare te loolu ci zaahir rek boo ko xoolee da nga koy gis da nga koy dund ndax boo xoolee tey jamono ci zaahir laay wax de ci zaahir rek moo lay won sëriñ bi jeexit ji nit ñi amoon ci moom jeexit jooju du dara lu may moom jeexit jim jeexital ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu jeexit ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek nii la murid yi jeexite ci moom seen lépp ndax tey soo xoolee li war a yitte ak pëstéef luñ am man koo joxe ngir yàlla sëriñ bi noonu la doon dunde ak ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma ne noonu la doon dunde ak yonent bi ak yàlla sëriñ bi ku mu mas a dégg ne kii xam ne dara ci yàlla bi muy dox jëm ci yàlla lu mu am mën na la koo jox moom ñi mu jaar ñëpp jàpp ni mënoon nañ koo àggale ci yàlla ku mu ci mas a toogal ku mu ci mas a àndal diir bi ngeen ànd du moom dara ci boppam du am dara ci boppam ndax léppam da koy jox yàlla ci yow mu rafet ci yow njott léppam la la jox ba ni yonent bi jàppe ci loxoom teg ko ci sunu borom subhaanahu wa taala nga gis ni bi mu yeggee foofu it ci tawféexi sunu borom noonu mu def yàlla ak yonentam rek ni la ko njaboot gi def ndax boo xoolee jumaay njariñ waxtu wi ñu koy defar dana la wóori la ko defam ci la ko defar ci koom takku na lool waaye defe naa ni 1925 su fekkente ni ci la jumaa ji noppi boo xoolee 1927 Afrique gépp mënoo cee gis jumaa ji mel ni jumaay njaareem loolu tawféex la ju ko sunu borom defal ñu jàpp ni xëy na ca loola ca la yem nga ñëw Touba bañ ko fa yóbbu 1927 dara ni ko fa daanaka juróomi buntu kër lay doon ndem mat na ko tey amut fu mu yem loolu lépp tawféexi sunu borom la ak yaatal mbiram ba lii ci mujj di Masaalikal Jinaan nga gis mu nekk loo xamante ni tey juróom-yaari at xëy na ci lañu ko liggéey ñu ne la nangami milliard la jege na ñaari fukki milliard wala toftalu na te gisoo benn ONC bu ci jàpp gisoo benn réewum naar bu ci jàpp gisoo kenn ku ci jàpp lépp taalibe murid yi ñoo ko dajale ngir lan seen yitte ci sëriñ bi ñi ngi ko nàmpe ci yitte sëriñ bi ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral loolu lépp ñu di ko mën a jëmmal te dara du ci sooxe dara du ci taxaw lépp ci kanam rek lay jëm yàlla moom ay gaayam da leen di denc te ku mu war a feeñal rek feeñal la day def ni nag ku mu feeñal nag ña topp ca gannaaw kooku dañ naan keneen mënutut a am ku dut kii ndax koo ñooña moom dong lañ gis waaye nag yàlla waxtu wu ne mën nay feeñalaat keneen koo xamante ni it ah mën naa def ci moom taw fii xam du ko soob nii ko sëriñ bi waxee rek wala tuxassis fadla rabbin xat xala bi si taqaddumin faqat fatatila bu jàpp ne moom la baax ñu jiitu woon jël nañ ko keneen mënut a am lu baax lam ca toftal mooy yàlla kat mën naa may mën naa jox mën naa wone ki mujjee dikk koo xam loo xam ne sax mayeeku woon ñu njëkkoon teg ca ni fattallu xad yabdu amaamal wabli waaye fal fadlu lil waabili laa li talli taw wis wis mën naa jiitu taw waame waaye ku ne xam ne ni ngëneel ci baykat bu soxlaa ji kembam wala baykat bu toolam maral mësay doyu ko ca wis wis doyu ko ca waame wu dotti wu tooy xepp mu mën a ji ak kembam moo ko ca doy waame wu tooy xepp mu mën a saxaat naatalaat gàncax ga moo ko ca doy moo tax mu ne nag taw wis wis man mën naa jiitu waaye nag waame moo moo ciy topp te ngëneel ku ne xam ne ni ngëneel moom ci waame lañ ko séentoo loolu lépp daf nuy jàngal ni képp ku dikkati it na xam ne yoon wi yoon wi moom gaañi bi ñuy dem yóbbaaliwuñ ko yoonu ya yoon wi jëm ci yàlla ba tey du fi jóg faw suñ borom it am ñu koy wuutu ci kaw suuf nga ñàkk leen a xam ak nga xam leen na waaye boo doxee ba daje ñoom da nga dem ba te te matal say sart ya nga war a àndee ak ñoom da nga dem ba fu góor yàlla tegoon tànkam nga teg fa sa tànk ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak tawfeexam te boo ci tegee sa tànk it du doon looy nattable du doon looy werante du doon ay gént du doon ay xayal du doon foog naa du doon jot naa ndax su boobaa tànk bu dee danga koy gis nii ci sàppe si loolu nag mbaaxu yàlla la yërmandeem la tawfeexam la képp ko dajee jëmm ju mel noonu nag da nga ko xam su boobaa boo matalee sarti ànd ga muy mu gënal la sa jëmm gënal la sa alal gënal la sa njaboot nga mel ni néew fi moom ni ko sëriñ Tuubaa jàngalee fakkun la daa cheikhi kamaytin wadiha bayna yaday xaasilihi tantafiha nekkal ci kanamu sëriñ bu matub sëriñ ñëpp néew sëriñ Tuubaa moo ko jàngale ku jàpp loola jàpp ku ko jàpput nga dem seeti ñeneen ña nga xamante ni ñooy jàpp leneen waaye lii moom waxi sëriñ bi la boo nekkee ci sa kanamu sëriñ melal ni ab néew néew du ni ndox mu tàng lañ may sange du ni dañ ciy boole njàmbe du ni dañ ciy boole saabu du ni nàngam lañ may sànge du ni béréb sàngam lañ may suul néew boo nga xasee doon ab néew rek amutoog tàng nu ñu fu ñu la wëlbati jëmalee nga jëm fa bu ñu la tegee sareetu mbaam akub sareetu fas akub oto akub avion lépp amul loo ci yëg wala loo ciy xàmmee ab taalibe bi day mel ni ab dërëm dërëm boo ko yóbboo ci bitig bi dërëm bi duna la jënd ma tàngal duna la jëndal ma singom duna la jëndal ma cigarette duna la jënd ma nàngam yow yaa cay am ak tànn ak def loolu lépp nag du caagee ni da ngay ñëw ne nit ki mbàkke la sant mbaa jóoba la sant mbaa njaay la sant mbaa si la sant mbaa nàngam la sant déedéet da ngay dem fa yàlla def mbiram nga jaayantee fa noonu te yàlla tax bu yàggee da nga dem ba taxaw ci sàppe sa góor yàlla taxaw kon dara jombiwut ci yàlla ci ki am yitte am pas-pas te dajee bunt te fas yéene dox te yàlla tax lay sëb cër yàlla dana la gàttandoog moom ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfeexam
jërëjëf Mbàkke kii tam mu ne dafay laaj mu ne ndax diggante àddiya sarax ak fay bor mu ne ban moo ci war a jiitu
loolu lépp day dafa am daraja ci lislaam nit soo amee bor dangay fay say bor bala ngay saraxe it dangay fay say bor bu la neexee it nag mën ngaa saraxe bu dee yaakaar nga ne mën ngaa fay say bor te sarax bi ngay sarax du yàq dara ci bor yi nga war a fay mën ngaa saraxe haddi yi bu la wóori ne haddi yi ji ngay joxe du la tee fay say bor it mën ngaa joxe sa hadiya ngir jëm yàlla waaye àtte bor fay àtte bor fay waaye xam nga nit mën naa nekk ci këram ci bitigam ca marché ba wala ca bureau ba man ngaa ama bor man ngaa génn sa bureau mbaa ngi génn sa kër gis kuy yalwaan wala ku yor ordonnance am gis ko amul lum lekk wala nga gis ko amul lum naan nga yëkkati jox ko ngir yàlla loola xam nga ne du la tee fay sa bor ba nga war a amee du la ci yàqal dara man ngaa dem ci sa kilifa yëkkati sa addiye jox ko waaye xam nga ni addiye jii tamit du yàq ca bor ba ngay fay dara waaye bor bii nga amee mu ne ci sam ndodd bu fekkente ni yaar yii da koy gàllankoor fayal bor bi doo la def yaar yii ndax bor ab te bor fay man day maa ngi maa ngi fetli sama njaam ak sama doyadi ak sama xeewu ci kanamu sunu borom subhanahu wa taala nitu yàlla yooyu ñooy suñuy sang ñooy suñuy sëriñ ñooy suñuy kilifa matuñu leen sax nañ ay taalibe matuñu leen sax ay taalibe ñoom ñooñee ñooy gaaya de yàlla nu yàlla taas ci seen barke yàlla nag dafa bari coobaree waaye nun daal fas yéene doon taalibe rek tey dox ci seenu doxin rek te di leen jéem di roy tey ñaan yàlla taas ñu ci seen barke ci mbaaxam ci yërmandeem ci taw bee xamal ndimbalam waaye man daal li may séeréer ñëpp mooy jaamu yàlla bu doy di taxee bu lool ba dem dayo te di ko ñaan mu gàttalu doog jagleelam ak yërmandeem bi sax dàkk te mu ëmb nañ mun ñëpp ci mbaaxam ak yërmandeem ak taw feexam bismillah laaj yi ma ngi ci waaw kon nag gannaaw waxtaan wi li ma ci doon dolli maa ngi dénk saa bopp te lim dénk mere wi ñuy dox di dikk ci kër gi ci daara ji nañuy góor góorlu ba mere woowu ñu di ci sax suñu génnee muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw bu dee jigéen nga lay dugg ci daara ji muuru ba ne man laj te soo génnee tasum réew du ànd bu rafet du ànd bu taalibe soo génnee ŋàbb sab tànk waaw toogal rek toogal rek waaw kay dégg nga kenn ku mu doon ci nun dafa war a góorgóorlu te kawal yi téem te yàlla tax li nu tax a jógit nu xam ko waaye boo dikkee ci daara ji won sa kilifa ab yar won ko teggin te lii ngay melawoo wóor na ni nekkul ci sa xol sa bopp dong ngay nax te dalay gaañ bu dee góor na nit da yore genn xar kanam rek te yàlla tax ndax loolu mooy liy jariñ suñuy jëf nan ko sellal te yàlla tax lépp lu ciy def nit di def na ànd ak yéene te yàlla tax kuy dox di fi dikk na yemaleeg yow dong nga doon dox di ñëw ci daara ji ak ñépp won la gannaaw ca la nga nekk waaye bul xool kuy dikk bul xool kuy dem bul xool ku lay tagg bul xool ku lay wàññi nekkal ci yoon te bañ ko wàcc soxna yi góor góorlu leen ci seeni sëy te jàpp ko ñi ci amagul boroom kër yem leen ci jaamu yàlla te jàpp seeni wayjur te yàlla tax waaye ku ci dox jëm si ci daara ji muuru col col nga nga war a sol soo génnee di soli tubéy mbaa ngay def leneen mbaa ngay def lu dul noona dara du ci sama kumpa waaye nax sa bopp képp la nag du nax la de man képp ku ci ànd ak man na yàlla tax ndax man li ma ne wutuma ci wéttal woowuma ci kenn it ragaluma ko ma ci ŋàññ bëgguma ci aw tànk yàlla moo nu boole nii ngeen di mel bu ngeen di dox di ñëw ci tànt bii wala ngeen di dox di ñëw ci daara ja su ngeen nekkee ci seen kër yi waajur mel leen noonu su ngeen dee liggéey it mel leen noonu waaye ku ciy ñëw muuru soo génnee tas dëkk bi di doxee ka waxee nu dul noona fu ne nga di fa dem dara ci dul sama kumba waaye da ci am loolu nag nax sa bopp rekk la du dara nit yar bi ñu nekk sa kilifa yar yàlla moo tax yàlla moom moom wuutiwut fenn fenn fenn fenn fu fi nit nekk lu mu ruq ruq ruq ruq ruq yàlla mi ngi lay gis bàyyi leen xel yàlla sunu borom boobu yi dee leen wax lu ngeen xam tey génn ci mbirum jàmbur waaye li ma wax léegi ku ci ne yaa ngay luq yaa ngay seet di wax lu sa nekkut ngàbb saw dal ngàbb sa tànk fa ne nga parang parang yi dem fa yëngali xew dégg nga nangam bàyyi leen loolu yarewuñ leen ko de lañ leen yare de mooy noppi ak jàpp seenu jàmbur te kenn ku ci nekk ay bi boppam doy ko wala si ay bi jàmbur muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nit day xool la koy jariñ mu nekk ca la ko amalul njariñ mu wan loola gannaaw loolu maa ngi koy dénk sa bopp te leen ko dénk ku ci gis koo bëgg ci góor yàlla yi ci soxna wax ca farata ak i waajur soxna sax soxna yi ku ci gis koo bëgg mu ñëw fi yow yebal ko ci say waajur la ca war a def lañ ca war a def ñu def ko dañ wattandiku ko wattandiku caaxaan loolu amatul mujj am na nit loolu mënu koy def leeru yàlla di tàbbi ci moom mukk abadan loo bëggal bëggal bëggal bëggal bëggal nit ki lu baax ndabam bu setu doo ca mën a def dara mooy tax nan bokk di góorgóorlu ci ndigal yi tey te tere yi ku ne am na ndigal luñ ko jox gannaaw boo jullee ci jàng alxuraan ci jàng xasiida ci tudd yàlla nañ ci sax te di ci góorgóorlu te di ko sellal te jëm yàlla suñu borom tax li ngay wër di wax toog ko jàng alxuraan ak xasida wala nga dem liggéeyi ko li ngay toog di wax tudd ko yàlla moo la kon njariñ fopp mooy tax nañu góorgóorlu te farlu dund gi lu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt la te kenn xamul fu sëb dund di yam te ci la ëllëg war a yéwé na de te ëllëg amul fu mu yam de ña demoon ba tey dikk guñ te noo leen war a fekke noonu kon nanu góorgóorlu bu baax tey farlu bu baax ci lu baax rëcc rëcc bu gaar nañ tuub dellu ci yàlla sunu borom tey góorgóorlu sunu kem kàttan mais na wu ñu bëggul dee fekku na ca nañ ca jóg dee day bett de te dikk mukk ci lu dul ak mbetteel kon maa ngi dénk saa bokki taalibe yi góor jigéen mag ak ndaw ku ne ndigal lañ ko jox na cee góorgóorlu kenn ku ci nekk ni ma waxtaanee léegi kenn ku ci nekk xamal nga ko sa bopp da ngeen di fanaan ci seen téléphone ba asamaan set wecc du ngeen ca wax lu ñor du ngeen ca wax lu xaay lépp lu ci nuru bànneex bis boo tegee téléphone bi fàtte ko te ñaar ràkk yoo julli wala subhanallahi joo wax wala allah joo wax wala laa ilaha illa allah joo wax ñu bindal la ko ca sunu borom muy loo xamante ni bis bu ñu takkee say tànk takk say loxo loola dana la jariñ nañu jiital yàlla ci tey nañu jiital ëllëg ci tey mooy tax nañu bokk gën a góorgóorlu bokk gën a fas te te jiital sunuy xel nañu jiital sunuy xel am na loolu bu ñu ko toppee dañuy sànku de ndax day am jumtukaay yooyu mënees na koo jëfandikoo ci farata waaye nag boo demee ba loolu bëgg laa sànq ba yàqal la sa adduna yàqal la sa alaxira dara jëm ko ci ab jullit kon ñëpp nañu bokk gën a jaajuwaat gën a farluwaat gën a yeesalaat suñu jaayante suñu digganteeg suñu borom ak sëriñ bi jaayante bu yees pet te gën a tax te gën a farlu te gën a góorgóorlu te yàlla tax li topp ci loolu nag mooy xel koom li nga xam ne noo ngi bokk di ko waajal ñun ñëpp ma bëgg nun ñëpp nu bokk def ci suñu yitte waxoon naa ko diiwaan benn bu ci nekk nañ jaayante ngir jëm yàlla wut seen waruwaay yu leen yóbbu luñ man ca lañ fay jëfandikoo it lépp nañu ko fàggal suñu bopp lañu yóbbu lépp it nañu ko toppatool suñu bopp ndax dafa am loo xam ne daf noo war te luñ ciy def ñu ànd ci ak yéene ju sell te jëm yàlla suñu borom rekk tax ki tax nuy jëf kat ak ki nuy digal seen tawféex nu ci nit taxawee tawféex joojee dana feeñ ci yow lu ma natt lu wut boo ànd ak sa yéene ju sell ak sa pas-pas bu sell kon maa ngi ciy soññu ñëpp muy xel koom maa ngi ciy sant nag bokki taalibe yi ndax ñu ci ne ñu ngi ñëw di ma wax ni nun day wut nañ suñu oto bopp am na ci ñooñu it am nañ kàttanu mën a wutal nit oto yëpp ña ngi koy def loolu maa ngi koy digal ñëpp ñenn ñu ci nekk diiwaan ba ñu féete nañu ànd ci seen biir fexe lu yéwénal seenu dem ku ñu mën a yóbbaale it yóbbaale ko daara janjaan dal nit fa la ñuy dal muy Daaru Salaam insha allah moo tax kon maa ngi ci soññu mbokki jullit yëpp di ci soññu mbokki tedd bi yëpp man nag lépp lu ma ci man ci saa wàllu bopp danaa ko ci jëf ci anam yëpp insha allahu tabaraka wa taala waaye maa ngi ci soññu mbokki jullit yëpp di ci soññu mbokki tedd bi yëpp di ci soññi soppe yëpp tey ñaan képp ku fa teew lu la jafe woon suñ borom jàpp ndala la loo doon yóotu nga jot te tam ànd ak jàmm bi sedd guy ndax sëriñ Saliou kët yàlla dafa dogal muy borom tawféex dafa am ko ma mas di nett li kilifa la génn na àdduna dafa am tawat du ko daloon bu metti waaye mu ni ma am na woote xel koom boo xam ne bi muy dem li ko daloon bu meloon ni lu koy dàq la bi mu duggee ci suufu xel koom rek la tàqalikoo loola loolu kilifa moo ko nettali gannaaw bi mu bëgg a toog ak Serigne Saliou boobu Serigne Saliou moom dund waaye suñu borom dogalu ko gannaaw bi nag tawat ja dikkalaat na ko ba xëy na sax ca la génne àdduna xëy na du ñàkk loolu bu ca toogoon ak ku baax ku baax ki yàlla mënoon na caa def saafara waaye xëy na booba it noonu la yàlla dogale waaye nag bàyyi na ko ab diir bu yàgg tawat ja doon koo daanaat loolu lépp day firnde dafa am rek lu muy firndeel ndax ku fa dem it xam ko ndax mbir mi dootul rek dem rek yi tool di góob rek waaye pas-pas ak yitt ak ki ngay jëfal dafa am lu muy def ndax man xel koom su ma fa nekkee man ci sama wetu bopp laa xam ne te yaakaar naa ne ñu ci bari ñu ngi ci daaw defe naa ne am na ci ko tànk bu metti la yore woon sax bu mettee metti ba dañ ko mujj opéré waat sax waaye bi mu duggee ci tool yi nee na ma yëgutuma dara dara dara ba ni ma fa génne man su ma fa nekkee di liggéey du ma yëg dara daaw li muy tàng tàng tàng koor laa yendoo ba bi ñuy wàcc une heure yëguma ko mag wóoru tayam loolu lépp it tawféex la ak yéene ju set la mooy tax maa ngi ciy soññu bokki jullit yëpp ak bokki talib yëpp ñu def ci yitte te def ci taxawaay diiwaan bu ne la ñuy def nañ ko bokk ci seen biir ay taxawaay lu ci ñu tële ca fa ñu nekk su ma ko yëgee ma jot li loola insha allahu tabaraka wa taala ñu tàmbalee ko ci diiwaanu Kër Mbaye Fall yi ak diiwaan yi ñu des yëpp nag ñenn ñu ci nekk lañ soxla nañ ca def seen yittey bopp ba fu ci seenu tëli àgg nu jot li ko insha allahu tabaraka wa taala kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant góor di sant jigéen di sant mag di sant ndaw ëllëg noo ngi leen di sant bu baax ci taxawaay yi fii ci gàmm gi ak waa diwaanu Kër Mbaye Fall bi nga xam ne ñoo koy taxawu taxawee ni rafet na ànd naa yitte ànd naa positif muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kenn ku ci nekk def na ci lu man ak lu mënut waaye yàlla sunu borom mi nga xamante ni moo tax ñuy jëf ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci jéem a wuutu Seexul Xadim ci sangamboo bii lu mu yëgoon ci tawféex ba muy liggéeyal sangamboo bi yàlla na sunu borom defal tawféex joojee kenn ku ci nekk la mu ragal yàlla na sunu borom dox digganteem ak loolee kenn ko ci nekk la muy bëgg di ko yóotu yàlla na ko ci suñu borom jotal li ci gën ngaa rafetee ne anam yàlla na yàlla saxal sunu ànd te rafetal ko te bokkul defal mujj gu rafet ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawféexam ci ndimbalam zaahiran wa baatinan kenn ko ci nekk la mu bëgg ci boppam bëgg ko ci njabootam yàlla na ko ci yàlla fekk ak lu kawe njortam kenn ko ci nekk la mu ragal ko ci boppam ragal ko ci njabootam yàlla na ko ci sunu borom defal yàlla na sunu borom dox diggam ak loolee ba faw kenn ku ne la muy yóotu yi te bëgg caa jot yàlla na ko ci yàlla jotal itam ànd ak jàmm ji seddu guy yu ak tawféex ak sutura yàlla na yàlla féq sunu fan yàlla na yàlla yërëm yàlla na yàlla yiir yàlla na yàlla taxawunu yàlla na yàlla sàmmunu yàlla na yàlla aar na yàlla na yàlla bokk na defal mujj gu rafet kenn ku ci nekk yàlla na yàlla yéwénal addunaam ak alaxira kenn ku ci nekk la mu bëgg ci xéewal bu mu mën a téye ak ragal yàllaam man cee taxaw ay waajur man cee jëfal lislaam yàlla na ko ci sunu borom bi subhanahu wa taala defal lu kawe njortam te lépp ànd ak jàmm lépp ànd ak tawféex ak sutura maa ngi tuubal yàlla sunu borom tey tuubaalee jullit ñépp te di ko ñaan mu jéggal ñu te bañ a xool sunu manki te bañ a xool sunu matadi te bañ a xool sunu mata sunu sunu sunu doyadi waxtu wu ne it ñuy gën di làqu ci moom fu ñu toll rek di ñaan ya ñu fekk ko at yu bari lool tam ànd ak wér lool ànd ak wér la lool ànd ak mucc lool ànd ak mucc la lool ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam di dellu di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér di ñaanal Serigne Cheikh mi nu sant liggéey bii te ñu xool te ñuy xool ci moom lu mu jëmmi Serigne Saliou rek yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko te yokk ko tawféex ak kaaraange te sàmmal na ko te mbooleem li muy jëf ci lislaam lépp ngir jëmmi Serigne Touba suñu borom nangul ko ko yéene Serigne Saliou ji mot li ak yéene boppam lépp it mu bokk def ci lu kawe njortam ci mbaaxum yàlla ak yërmandeem ak tawféexam ak njabootu yépp ak njabootum lislaam gépp fu fi nit nekk ci toolu lislaam bi di bay yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal xéewal yàlla na ko yàlla defal mucc yàlla na ko yàlla defal sutura di leen sant it ci di weesu muy màggal gi taxawin wi rafet na lool lépp it noonu rek la nag nanu boole suñu bopp nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla te liggéey bu jóg bu ca kenn xeeb ab dërëmam wala ab ñaar dërëmam waaye bu ca kenn xeeb ab junneem wala ñaari junneem ba bu ca doon def téeméeri million yi bu mu ko naw bu mu ko yéem na yàlla rek tax nuy jëf lu dikk bu ñu boolee suñu bopp fas yéene kenn ku ci nekk jàpp ni man maa ko war a yéwénal donte ab dërëm nga am wala sax dencoo benn dërëm sax waaye sa yéene ja ngay am ci ju sell mën naa tax suñu borom bett laag loo foogutoon sax ca loo cay mën a jëf kon yàlla na nu suñu borom gën a dimbali te gën noo taxaw nu góorgóorlu bu baax bépp liggéey bu dikk bu kenn xaar ñu la cay soññ lépp lu ñu yëkkati kenn ku ci nekk lu mu ca man jërut xaar ñu di ko ci soññ na ca nekk ñu bokk di góorgóorlu bu baax tey farlu baax tey dimbalante ci suñu biir tey jàppalante ci suñu biir tey suuturaalante it ci suñu biir te yàlla tax te kenn ku ci nekk ayib bi boppam na ko doy wala si ayib bi jàpp yow mii ngàpp sa tànk di dox yaa ngi dox jëm fan ngir weer sa mbokkum doomu aadama yaa ngi ànd ak ci sa biir loo xamante ni day bëggoo kenn xam ko bëggoo kenn yëg ko bëggoo kenn gis ko te nga ngàbb saw dàll nga ngàbb sa tànk sol saw dàll fa seeni jëm fan diw dey lim nekkee dana siiw diw dey lim nekkee ñëpp danañu ko yëg te yow yaa ngi ci loo xamante ni bëggoo kenn yëg ko loolu yi nañ koy bàyyante xel bu baax nit day góorgóorlu nit day farlu nit du ndox ko bokkul jullitam réere gi ñu réere ñun ñii sunu mujj war naa tax ñun ñëpp nu teey war naa tax ñun ñëpp nuy def ndànk ndax lu dal nit rek xamoo lu cay sëb cër yow loo gis mu dal nit yow xamoo lan mooy sëb cër yow amaana nga gis lu dal nit nga bokkoo ndokk te yow loola sëb cër de da nga caa àggagul rek te amaana yaa ko yées la sax boo yeexee mooy tax nanu góorgóorlu bu baax di yéenante jàmm di waxante jàmm di jëflante jàmm bu kenn toog fenn di tudd sa morom ci lu dul noonu muy fii ci biir daara ji ak lu ko génn ak bokki jullit yëpp nit del wax ci sa mbokk lu baax mbaa nga noppi waaye bu ñu toogee ngay wax ci moom lu rafet su génnee ngay sànni ay baat ci kawam loolu du waru góor ak jullit ab jullit bu ko def nit day mën naa defum ñaawteef dem ba ñaawteeful jural ko yiw wudul jeex ndax bu ko ku ne bu ko fukki nit tuddee fukk ñoo ne kenn ku nekk la mu amoon ci aw yu dana ko ko jox ñu séddee aw ñaw téefam kon buñ jël buñ jël bu ñu jël suñ lu baax di ko jox kenn di jël safaanam kenn liñ am ci lu baax nañ ko téye nañ ko denc li nu yàlla nattoo ci ay rëcc rëcc nañ ko tuubal moom yàlla yàlla ku bëgg jàmm buy tuub la te jàmm buy tuub te sellal ko suñu borom dana la jéggal kon noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp ñaan yàlla nu fekk ko at yu bari tam ànd ak wér ak wér la te suñu borom gën a jàppandal suñuy wér assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu